déglu musique déglu ay way yu jëmul ci yàlla jëmul ci yonante bi moo ko gënal déglu tur yàlla wala déglu waxtaanu yàlla wala alquran wala hadis wala taggu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy ruugi tawat ruugi tawat nag dafa war a faju lan mooy saafaraam ci koy faj ci yooyu la ñu bëgg a jëm di ko waxtaane ndax li nga xam ne mooy suñu njëriñ ci ak ëllëg mooy sabab suñu texe ñu war cee góorgóorlu ak ñuy am yoon wu ñu war a jaar ba àgg ci li ñu bëgg yoon woowu la ñu fas yéene waxtaane ngëm ak topp maanaam cofeel ñooy sababu lépp ñooy sababu gépp texe gëm googu ak sopp googu day àggale ak xol ba ci jeex ci yàlla tàkk jeex ci li koy jëmee ci yàlla tàkk bu ko defee dootu yëg leneen dootu gis leneen bay bëgg leneen ndax ak cofeel taxañu yoon la da ngeen dégg ñu ne sëñ Tuuba radiallahu taala anhu bi suñu borom yëree xoli jaam ñëpp fekk xolam gën cee sopp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ko tànn def ko muy xaadimu rasul loolu moo tax mu ne tawaytu tariqa al qawmi waxtam ci daaxihi wa li qad sama xaajaati bi rawdi wal basti cofeel gu tar boobu mu sopp yàlla ak yonent bi ba xameetul suukar ak xoram xameetul safara ak ndox mu tàng xameetul lu neex ak lu naqare moo waral buy tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu taxañal ko yoon wi nga xam ne daanu baax ni dañ koy dox ci ay ñeent fukki at ak juróom fukki at suñu borom nee na lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuuna wa maa tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi aliim du ngeen am mukk la leen gënal feeg amulee sabu leen ci la leen gënal def ko ci yoon yàlla muy ci seen doole muy ci seen bakkan muy ci seen alal muy ci seen jamono faw nit ki li ñuy wax tabaxiya muy sacrifice mu fab ci lam gën a bëgg def ko ci yàlla ngir am la ko gënal ëllëg bu ko deful nag du ko mën a am mukk ñu ne murid murid mooy lan tur ma gën a gàtt mooy koo xam ne moomul dara dara moomu ko murid mooy alfaqiru ilallah moomul dara ndax dañu jaayee boromam léppam jënde ko taxit ëllëg la noppee moom dara gardekat la rek nag buy garde la mu amee la ko yàlla dénk waaye waxtu lislaam soxlaa wala yoon mu nekk soxla mu daal di fab loola def ko ci soxla si yàlla ak yonent bi loola tax moomul dara dafa mel ne shahid shahid mooy kan ci ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xare ci jihaar ngir yëkkati baatu suñu borom ba dee kooku dara jooju mu amee li ko ko may moo di adduna medd la képp ku ci laal xasal ci moo tax boo dee ñu di la sang bu yoma xeer na ñu di la xisaab boo demee ci bàmmeel ñu di la laaj si nga xam ne génn na ci adduna ba set wecc ba dara taxu ko ci dara xëy si ci moom lenn muy ci nga xam ne jóg na ngir fas yéenee dee ci yoonu yàlla nga xam ne génn na xelam ci alalam génn xelam ci këram génn xelam ci ay doom génn xelam ci lépp lu moomoon ci adduna fas yéenee dee ngir tax ëllëg ngir ngërëmal yàlla ak yërmandeem kooka dara taxatu ko ci adduna set boobu mu set wecc génnaale ko adduna moo tax aajowul sang aajowul sang aajowul dara yeneen ñoom doon xeexe ñoo koy seede ëllëg yomal xiyaam naka noonu la murid mel murid itam bu ñu jëbbalee boppam moomatul dara nu mu jëbbalee ak ruuxam la jëbbalee yaramam noonu la jëbbalee alalam noonu la jëbbalee doomam noonu la jëbbalee lépp lu moom bu fekkee ne loolu def na ko te muy dëgg ci moom dara taxatu ko ci adduna bu fi jógee dara du xeeñ ci moom ram naa wax conférence yi ne doomu aadama wax boo xam ne toll na ci sukuraat la mu gënoon a bëgg tam yàlla du lu jë lu koy jëmee ci yàlla mooy gas bi gën a màgg moom lay gën a ragal moom lay gën a sib moom lay gën a bañ waxtu waroo gi génn su sañoon ñu dal di koy dugal léegi fa gën a naqari te mu bañ a tee gis ñaawaayu melo woowu muy li doxal diggam ak yàlla dox diggam ak texe dox diggam ak xam boromam kon nag ki tudde bopp al murid bu àggee ci al muridu saadiq dafay set ci yooyu yëpp day meloo meew ki nga xam ne dara tax ko ci àdduna moo def lu ñuy wax taxliya gannaaw taxliya taxliya ci topp mooy di nga raxasee sa ndab ba mu set wecc nga duy ko ak la la gënal nit ki ba murid bi ba mu raxasee xolam ba mu set wecc ci waxtu mu jébbalee boppam dafa daal di fas yéene wut nag ngërëm ngërëmal kan ngërëmal yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi ndax nañu kat bala ngay àgg ci yàlla da nga dem ba defe ne suñu borom bindul benn mbindeef yow dong yaa am ak yàlla te bala ngay àgg foofu da nga njëkk a jaar ci bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak gëm ko ba mel ne suñu borom bindul dara du rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te bala ngay àgg ci loolu sa sëriñ bi nga xam ne mooy sa wasila da nga toll foo xam ne da nga defee ne da nga mel ne sa xol mbindeef yëpp dee nañu ci ba dara amatul lu dul sa sëriñ bi nga xam ne mooy sa wasila ila rabbika boo àggee foofu nga xam ne dëgg matu cofeel matu wóolu matu gëm matu dogu daje na ci yow nii buum bi lay yeew ci moom di buum bu dëgër bu dul dagg mukk fu mu àgg dafa àgg fa ndax nit fu mu dem fa yóbbu bagaasam kon buñ ne murit du moom dara dara du ko moom mooy xolam du aju ci dara loo xam ne waxtu wuy dee xolam di siisu xam ngeen ne nee nañ nit bu fiy jógee ba noppi sax dana bëgg la wala mu bëgg nit ba suñ ko yóbbu day gis kenn ba kenn du ko àttan noonu la xol mel day siis bu fekkee ne am nga bëgg ci adduna boo defee ba loola dox sa digal yàlla noonu ñi yaa ngi diise ci siisu ngir bëgg nit ku muy tàggoon léegi noonu la safaraw teqalikoo di tàcc ci sa xol di gën di li nga bëggoon ci adduna ak fa nga jëm te fàggoo ko woon mu di metti wut tamit di loo xam ne kenn mun la ko misaal nga xam ne kon su dee mën na gaala ne xasiiru bët ni ku ñu saxal wala ku ko fiir la xabar wala xama lu muy gaala ci bët nit ñi fekk mën naa yàgg ci borom toll na téeméeri junni at naka noonu nit ci taw sama sukuraatam mën na yàgg ci nit ñi di ko xaar fekk mu gaala ci moom ne xasiiru bët xiti waaye texe jënd ko roo mu ngi aju ci bëgg yàlla ba mu gënal la adduna moo xam da nga bëgg suñu borom tabaraka wa taala ci boppam ngir xam ko wala da nga bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngir xam ko ak ngir topp ko wala da nga bëgg sëriñ bi nga xam ne moo dox sa diggante ak yàlla di bunt bi ngay jaar ba àgg ca xadra ba nga bëgge ko noonu noonu lay fayee noonu lay fayee noonu lay setale la ci ayib yi ci xol noonu murid war na misaal moo doon saxaaba yi sëriñ Tuubaa mosul dañ jamono yi nga xam ne njaar benn yoon murid da nga tàmbali te suñu borom xiir noonu yàlla yu bëri ñi di leen soxale di leen xiise di leen def li gën a metti di leen dàq di leen tëj di leen dóor di nangu seen alal di lakk seen i kër bu ñu mësaan ñëw tawat ko mu ne leen xanaa seen xel dafa demoon ci saxaaba yi ñooñu ñooy seen i baay ci lislaam daje woon nañu ak lu gën a metti lii ngeen daj te musula wàññi seen gëm tax lu mas a tar tar daf leen di gën a yokk ak ngëm gën leen a doole takku ak taxawaay kon noonu itam la murid di waranal dara war koo xëbal ba mu tiit waru la bëgg dara itam ba mu lokki bëtam ba mu fàtte yàlla ak yonente bi wala mu fàtte sëriñ bi dafa war a jiital loolu lu ñëw ñëw gannaaw lu mën a ñàkk na yemale bu ko amee ak bu ko bu ko ñàkkee li koy ñàkk li muy ñàkk mu metti ko mooy luy dox digganteem ak yàlla wala luy dox digganteem ak wasila bi loolu rek mooy li jarit looy ndax waxtu woo xam ne noonu kës fu nañ ko ba kumpaan dañ dana gis ne benn topp dara topp bi gën a néew muy topp bàqit gën a tuuti bu defee digganteem ak sëriñ bi dina ko indil yomal xiyaam naqar woo xam ne dana ko jooy ay at ndax dox na digganteem ak yàlla dox digganteem ak yonent bi noonu nga xam ne moom la sëriñ bi daan misaale misaalu murid muy sahaaba yi ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam misaalam moom ci boppam ci diggante taxliya taxliya jaawartu bi mu way muy xaatimatul maqaas xam ne bi mu dofee yoon yi ba mu jeex ba nga xam ne ak gën a ci boromam ak waay bu mënee fu la weesu tabet boromam dikkal ko ba ay ndabam fees ba baaraan ba wër ko ba nga ko jege fees lépp lu taaxam ci la ko wër fees la way jaawaat bi furqaan rabbi al muin marat na fie wa maslaxtu lain loolal njaal bin bi mooy saxuk sell xol bu sell ba takk ndoor dara du ko lëndëmal takk ndoor dara du ko laal du ko jege dara du ko xeeñ lu jëmal ci yàlla muy sell bu sax bu amul dogantal ba faw sell sell cofeel di la ko setal ba mu set cofeel ñëw fees ndaxal xolam ba bëgg fees gi mu fees ba bëgg ci la waaye nag jaawar bi fuqaan rabbi al muin moo ne ne foofu mboolem kon yi nga xam ne ñooy dox jaam ko si yàlla yi jëm ci seen borom suñu borom feral na ko ko te suñu borom dëkkaale nag moom dëkkaale gox tax na lu bon mënatu la jëm ci ci moom loolu tax mu ne ñett ñi ànd nañ ñoom man ba àjjana mooy bakkan bànneex adduna ba kanam nee na ba kanam suñu borom tàggat tàggatal na ko toog ba mu nekk taalibe bànneexam di jëm ci lu ñu dëgg xawaanam taxaari xaq wal xaq diinu naa adduna itam li muy yóbbuloo ba àjjana rek la cay fab li adduna bari bari di ko suñu borom di jox jox ndax ni mu waxe woon ne suñu adduna mas naa jublu si ngir suñu borom di ma seet ba xam damay def ma wan ko gannaaw adduna wan ma gannaaw sori ma dékkatuma ca dara taxul ma geesu ko gën a jublu ci sama borom rek adduna soog a dellu si nag suñu borom desal adduna mu di taalibeem bu ñu tàggat ba mu bokk waaye taxul mu jël ci lu dul la mu yóbbuloo rek ba àjjana mu di koo xam ne matal na xàq jaam yëpp bu ñu mënoon a matal xàq suñu borom tabaraka wa taala ñu ne matal na ko bu ñu mënoon a matal xàq rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne matal na ko waaye matal na xàq jaam yëpp ñi ko toppal ñi ko toppul mu des nag taalibe yi seen diggante ak moom ci matal xàqam matal xàqam tax jëmm joo xam ne diggante mooy bu dugg ba ba muy dellu si mboolem xoli taalibe yëpp dana ko fi nen ko lu nag juróom-ñaar fukki yoon fa la matal xàq nit yam danga mën na faa àgg taalibe bi xàqam des tudd naa ko fële bër ci démb benn jëmm boo xam ne dafa mësu ñëw ne ma man de damaa gént duur te duwal yi bu mag dafa kabar di julli mbooloo ma ko jël fenn taxaw mbooloo ma ko jël fenn taxaw ci gannaawam waaye ñëpp dañoo gappoo nee na sëriñ bi bu kabaree asamaan si ne xërëng xërëng xërëng ba mel na dafay dajji ko nee na waaye ñi ko topp ñëpp ci gannaawam te dañoo gappoo man doo nga taxaw ci julli gi mu ne ko loolu day xamkat yi daan ko suyee ne bu la nit jiitee nga gàpparu moom mu taxaw dafa matal sa xaq te yow mataloo xaqam kon taalibe yi lu ñu takku war nañ ko gën a dolli lu ñu fonk war nañ ko gën a dolli lu ñu joxe seen bopp war nañ ko gën a dolli lu ñu góorgóorlu góorgóorlu war nañ ko gën a dolli lu ñu sopp sëriñ bi ak lu ñu ko màggal war nañ ko gën a dolli ndax fara nañoo matal xaqam ndax te xet laaxiral moo ëpp lépp jaam mënu koo fàggul boppam kon ku la ko fàggul mënuloo koo fay te xel sax laatu ko waaye nag nga def li nga mën ni ñëpp moo tax sa jaan wàcc ñàkk a gàttay lu nag ci xaq ñàkk a gàttay lu murid bi ci xaq sëriñam mooy sababu àgg ci yàlla du ma ne mooy sababu texe dama ne mooy sababu àgg ci yàlla daana ko wax teel bu demee ba ci kanam insha allah li ci jiitu moo di coxeel sopp ndax sopp mooy buum bi gën a dëgër ci buum bu mën a takk diggante murid ak suñu wël sëñ Tuubaa na Tuuba li abdin muridin sadat lahu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyatin gaañ aju nañ ci yàlla ñu sell ñooñu bépp jaam boo xam ne aju la ci ñoom nga liggéeyal leen texeñ yàlla la nga sopp leen texeñ yàlla la nga jox leen hadiya texe ñeel na la ñett yooyu yëpp nag li ci gën a ëpp solo mooy al mahabbatu ak surtout fi mahabbatu ci ni ko sëriñ bi waxe dëggu ci topp sëriñ bi ndax dañoo dem ba sëriñ Tuubaa jamono ji mu ñëw dund gi ñu ci dund di gën jaar texe jamono di gën jaar dundi jamono di gën jaar mag ci jamono di gën jaar neex jamono ci bépp xol boo xam ne yàlla yërëm na borom ñu lépp ko mu di jamono bi ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee woon na texe ñeer na ku dund ci ñeenteelu téeméer bi ñëw gannaaw junni at wala nga suñu jamono boobu le la koy topp li ñëw gannaaw di tàmbalik axiru zaman yi ñu waxoon ci axiru zaman yëpp bu ñu ko seetee te ko lépp ñëw war a gën a dolli kon suñu njàqare war a gën a dolli suñu farlu war a gën a dolli suñu ragal war a dolli suñu góorgóorlu ndax mboolem tànk yi nga xam ne daan baax ñu jaare woon nañ ko fi raaf na mboolem li ñu takkale woon daan ko gisatuñ ko ci li ëpp ci nit ñi ci jamono ji lu ko waral almardiyatu amya maanaam matérialisme boo xam ne bii dafa fakk xoli nit ñi ba mëdd ko fakk seen gisub xol seen diggante te ak ëllëg mu di nit ki njëriñu teew moo fa gënal njëriñu teew lu ñu néew néew moo fa gënal njëriñal ëllëg lu bare bare bare bare mu jaay njëriñal ëllëg lu bare bare jënd ko njëriñal tey lu gaa lu gàtt lu gaaw a jeex lu néew lu ñàkk solo loo xam ne dafa jaxasoog ay naqar jaxasoog ay wóore di wóore di jaxasoog ay nattu jaxasoog ay mbugal jaxasoog ay musiba wala ko dund gi gàtt gàttay boo xam ne nit ki ci la war a defar àllaaxiraam te ay soxlaam bari na ñi koy dog gën a bari te dee di ñëw lu dul bette ñu sëñ bi waxee al mawtu yaati baxtatan wa rabbama yakunu daa sewaakirin muxtarama dee di ñëw mukk lu dul bette te li gën a bari ci jamono day fekk nit koo xam ne ci dafa amee ay itte ba jotul dara mu dog ko rey ko kon nit ki amul xeex bu mu delloo xolam ci yàlla wala jaamu yàlla goo xam ne ji daf caa nekk def la mu mën lépp waaye day nekk ci ay itte adduna yu ko soxlaal lool mu am ay naan yoo xam ne yi xamagul kañ lay àgg dee dikk jox ko ci loolu dindi gën a mat a muslu ndax daañu wax ne day roo buy wax gis ka lam ko fekkoon rek moo gën a takku bu jëful jëf yu bare bare bare ngëm gu dëgër moo ëpp doole loola ba far ko li nit ji rek mooy gën a def taasir maanaam mooy gën a jeexital ci xolam jeexital boobu nag li nit ji di jeexital di ko jeexital ci xol doomu aadama bi mën gën a dëgëre mooy na nit ci gënee sore pour yàlla ak jaamu yàlla ak jàng alquran ak ziare ku koy delloo si li li gën a itteel ci jamono ji ñu toll ci mag ñi mu di yar seen njaboot yar boobu itam di lu ñu sàggane ndax yar mooy buntu bi yëpp suñ tubaab nee na doomu aadama du jëriñ lenn loo xam ne andi taatu bu yar ñu ci nekk tabax il xaaji waaye wax boo xam ne ci dugg na ci dara te dugg ci am yar suñ borom du ko xañ barke loola le dana ko matalal te dana am barke ba nit nag balay mën a yare day yaru mun nañu nit suñ bopp moo war yar suñ bopp ndax mag mooy yar boppam boo yaree sa bopp ba noppi nga xam ne ngay yare ñu aju ci yow ndax ëllëg dañuy layoo ak yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ku nekk ci yéen ak sàmm la wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ku ci nekk ci yéen daañu ko laaj la muy sàmm ëllëg nit nga xam ne yiliful kenn dul boppam daañu ko sàmm daañu ko laaj ëllëg cëram yi ndax cëram yi mu ngi leen di sàmm muy juróom-ñaari cër yi nga xam ne dañ ko waane cër bu ci nekk jàkkaarloo naag benn bunt ci bunt safara nga xam ne bu ca mooyee ca bunt ba mu jàkkaarloo ca safara ca lay tàggal foofa yomal xiyaam bu fekkee am na keneen ku aju ci moom muy rakkam muy soxnaam muy doomam kooku bokk na ci ñi muy sàmm te ëllëg daañu ko laaj ndax taxawoo na ni nam leen waroon a taxawoo wala déet bu fekkee ne nit la koo xam ne am na ñeneen ñu aju ci moom moo xam ak njëbb la wala ñu doon am na xaq ak ñoom te lu ci manqué ëllëg daañu ko laaj sallallahu alayhi wa sallam nee na man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in yastatix fa bi lisaanihi wa in yastatix fa bi qalbihi wa al-aqwa bi imaanihi jullit ñi dañoo waroon boole bu ñu boole seen bopp bëgg bu ñu bokk bëgg lu baax ñu dimbalante ci def lu baax ba kenn koo ci xam ne kii gis nga loo xam ne lii kat du yoon te ki ko def dana ko lor ëllëg nga dindi ko ak solo boo ko mënee boo ko mënul yàlla tegu la ko waaye bu fekkee ne mën nga caa wax ci sa lan ba mu dañ wala mu wàññiku war ngaa wax bu fekkee ne mën loo caa wax boo ca waxee mu indil la jaahiya wala ñu rey la ci wala ñu tëj la nga sikk ko ci sa xol naqar lu ko ba yàlla xam ne naqar lu nga ko nee na loolu mooy dara ji nit bi ci dara day ngëm lu ko weesu tuddeetuñ ko ngëm mu ne jullit ñi al muslimuuna tatakaatu dimaahum wa yas'aa dimaahum adnaahum yad'uuna alaa man siwaahum jullit ñëpp dañoo war a yëpp mbokk yi ñu doon ak benn bi ñu doon benn ba nga xam ne kenn ci gën a suufee ci ñoom suñ fasante wëllëre wëllëre wala jullit ñëpp jàpp ko nga xam ne ñoom kenn koo xam ne ci bokkuloo ci ñoom nga toon ci kenn ñoom ñëpp ay àndandoo dal ci sa kaw ñu dem ba ak ci jamono boo xam ne yàq nañ ko yàq boo xam ne jub jafe na ndax nit dana yàq ko du ko yëpp xale yi ndaw ñoom muy góor ñi ak ñu jigéen ñëpp ñu ngi tuddee liberté ak démocratie nga xam ne ay baat lañ yoo xam ne dara taxul ñu créé ko lu dul yàqal ñi nga xam ne ci li ñu tuddee civilisation àgg duñu ca kaw te ñu jaar ci te ñu am loo xam ne daf leen war a jubal war ni nag melal moo xam ne dañuy xeeb képp koo xam ne bokkuloo ñoom ci yoon woowale mu di lislaam bu ko defee ñu ne la liberté nit ku nekk da ngaa libre li nga bëgg a def sañ nga koo def kenn sañ la koo xañ boo xasee ba major te loolu wuuteeg ñun lislaam li ñu xam ndax ñun lislaam li ñu xam nit boo xamee ne yaa ko ameel lu muy lekk amee ko fu muy tëdd gàddul ko lu muy sol bis bu amee problème bu demee police fu mu mën a dem yow yaay dem ñu jëm ci ko ko soo ko boo nee mu ne lu ma ko dara lislaam du ko nangu te kooku itam bu la liberté wala ci waruloo ko nangu bu fekkee nag dem nañ ba saxal loolu ci suñu xol doon am njaamburu ku la ku nekk lu la neex def digle tere amatul ndax kenn ku nekk libre nga bu boobaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na da ngeen sax yéen ñëpp ci di digle lu baax di tere lu bon wala suñu borom dana seet ña yées ci yéen mu yëkkati leen teg seen kaw ñu di leen war di leen def lu leen neex te bu boobaa ña gën ci yéen bu ñu tàllalee seen loxo ñaan suñu borom du ko nangu suñu borom tabaraka wa taala nee na alxabisaat min xabisina walxabisuuna min xabisaati والطيبات للطيبين والطيبات والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم كتبوا لكم كلمه te الكفر ملة واحدة ñu dem ñëpp benn lañu dañoo boole seen bopp ana kon ñu baax ne ana ñuy woote ne jullit lañu lu war dox seen diggante bi mu ñoo boole seen bopp muy benn te ñun jullit bi bu ñu yabee ci ñun dong la yoon wa ñu rëddale woon dañ ko wàcc buñ ko wàccee nag fekk keneen ca yoon nga xam ne moo ñu ci ëpp doole mu di ñu dinoo te kenn du àtte war ci doomu aadama sàmm mboolem cëram yëpp te yéene mbokkum jullitam mu ne yiw la mu yéene boppam fekk difu ko ak njëmeen nag ni bu ko yéenee nag war na ci dimbali ko fu mu ko mën a dimbali war na koo dimbali muy ci kattanam muy ci xelam ci xalaatam muy ci xam-xamam ba sari ak yoonal na boora mboon ab gàtt sa mbokkum jullit moom ko nga xam ko mu xelandi ko ba war a dee rendi woo ko ba mu ñëdd yoon fayloo na la ko buñ demee nag ba boo retee boo rendee gàttu jàmbur yóbbu la police nga romb doon jàmbur muy def lu koy lor moo xam lu koy gaañ léegi la wala lu koy gaañ ëllëg nga wax ko dara ba ngeen jot dara ñu yóbbu la police julli ñu tàngal dafa war kon ñu baax yëpp jaxasoo ñu créé seen milieu bopp boo xam ne ku fa màggee ku fa jummee boo xam lu dul lu baax nga xam ne lu bon du lu jóge ci jënd la loolu la sëñ Tuubaa bëggoon bi nga xamee ne daf daan dajale daara di leen yar di leen yee di leen jàngal di leen xut di leen xamal yàlla ak yonent bi di leen jàngaloo alquran di leen jàngaloo tagg yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba ñu dem ba àgg ci li ñuy wax réer kenn ku nekk mu bernas béréb yow itam nga amee sa daara di defal ñooña noonu liggéey boobu mu tàmbali woon dafa bëggoon ñu ñëw bu ko defee Sénégal gépp nit ñi mat tëkk la ñuy doon kenn du man si jàng la buñ ko lajjee nag seet ñi mu yàlla boppam daan ci àgg léegi ci waxtaan bi incha allah kon képp koo xam ne bëgg nga sa texe ëllëg na nga wattandiku li mu tuddee ma jaari ci saqaaw ma jaari ci saqaaw mooy jotaay boo xam ne boo fa nekkee da ngay fàtte yàlla julli sax dana jox texel di ko dem da ngay waxtaane adduna wala nga nekk ci po benn ngay bëlër wala ngay danye wala ngay defe leneen wala ngay waxtaane politique wala ngay seetaan football wala lu mu doon loo xam ne lii doo feeg yaa nga fa texel dem ci yàlla mukk te wax dana jox doo ko mën a julli wala texel sax bi ko dem nga fàtte ko loolu moom la ñu tuddee ma jaari ci saqaaw dañ ko wax na ko ci tëgg bu tëgg mooy jotaayu texee bi jotaay yooyu mooy waral texee bi waaye biir dana set de dëgg gu wex ci xat dana dem ba leer suñu jëmm ji nekk teg ci sa bët te ñaar yoon lay te ñaar yoon lay ñu mën ko ndax nu daan war a waar ndax yonent bi salaa sama dafa noon bàyyi naa si yéen ñaari waare kat mu di alquran ak dee dem nañu ba dee jëf ñu waar dañu yore ko dee suul ko ci bàmmeel ya wala tàmbali waxtaan adduna ci biir armée yi wala bu ñu génnee rek nekk ca nga xam ne du jeexital suñu dara buñ seet lu jëmm jooju nga xam ne dañuy def dañu xóot suuf lu ñu diise ñu fat suul ko ba mu maase ñu jël ko danga ci ko fa te doo ci jóge ñu ñu ñaan dox seen soxlaa ko wax yomal xaam dong lay dekk daje te ñun ñi kaa bu ñu jëfam di ko fa fekk buñ ko defee ba noppi lii waroon a delloo suñuy xel delloo suñuy xol mu nekk lu ab diir dana ci yàlla ab diir nga xam ne waxtu wu suulee bi suñu xol dem ci suñu bisu bopp bi nga xam ne day ñëw te du jaas mukk te dama koy jaas te bu boobaa xam nañ li ñu jëriñ waaye seytaan dox nañu suñu diggante moom loolee bu fekkonte ne la mu war a def suñu xol def ko suñu def bu dara dalay yàgg ñu gisat leneen loo xam ne dana séeréer suñu xol dam muy jotaayu waxtaanu yàlla wala muy dugg ci jàkka wala muy jàng alquran dugg mu xasida wala muy keneen ku fi jóge wala seeti ko feebar nga xam ne loolu lépp lu ci nekk daf laa war a waar boo amee xel jullit ñu dem ba suñuy xol tawat tawat yoo xam ne loolu lépp du jeexital suñu dañ koy def ba noppi nawet nañ ñoloon rek kon ñaari waare kat yi ci bàyyi woon daanaka waare suñu loolu mooy lan yàqute li ci war daanaka waxtaan bu soobee yàlla léegi ci kanam insha allah nee na mbir bil urfi bil maaruf wanha anil munkar فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإجابة كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك لا يدرك من ضل إذا تليت ñu ne ko digle ñu ak tere bi ñu sib maanaam digle lu baax tere lu bon kañ lay jeex ba nga xam ne nit mën na koo bañ a def ak nekk jaabur boppam rek tëjee diineem fas yéene nit ci rek moom ci boppam kañ la ko nit digal ñu ne déedéet digle lu baax tere lu bon footal waxtu woo demee jamono yu dem ba nit ñi nay nañu nay boo xam ne nay nañ ci seen jamono dootuñu taxaw di la digle muy waare yow muy wax di jëm ci yàlla yow mi leen di jëriñ may nañ ci seen alal bu ñu yëkkati nit seen alal la ca am ngeen def ko ci yoonu yàlla ak ci gan anam la may nañ ci seen yaram seen coono bu ñu sonn nit ci loo xam ne lii dañuy ñaq te yàlla dong tax te yomu ci am wax nañ ne yëpp ñaq loo xam ne lii duub ci yoonu yàlla la génne bu keroogee wabaal lay nekk loolu dafa ko dal ci sa kaw waaye yëpp ñaq loo xam ne ci digg dimbali ak jullit la wala ci dox loo xam ne lii defar mbokk la wala loo xam ne lii ci jëm ci yàlla la bu ko rawee daf lay ram mutu dana la teele ñu ne nag kon boo demee ba gis nay boobu ñu topp ko bànneex kenn ku nekk sa bànneex bopp dong nga nekkal boo xëyee suba ba jënt fa fasal nii yaa ngi ko tàgg ñu di lay indil bànneex moo xam alal jël dajale denc ko la wala waxtaan wu neex woo waa ko dem seet ci ñooñu pour di waxtaan rek ci waxtaanu adduna wala dégg loo xam ne lii dafay neex ci sa xol sa mbiri àdduna dong wala li mu mën a doon ci loo xam ne lii rek li lay alal ëllëg la te neex ci yow ci sa bakkan ci seetaane dina ko dimbali dina ko dina dina ko wax waaye jaabat su mbiri ay mbira yi kenn ku nekk sa xalaat bopp doy la nit ki du xam ne am na lu mu xam am na lu mu umpale lam xam xam na ko lam umpale te mu di ko jëriñ na ko laajte ji lu dul xelam xol day tëpp xelam la doyloo ci sharia ci àq yenn ci àqay sharia xelam la doyloo ci digganteem ak boromam xelam boppam la doyloo ci digganteem ak jaam yàlla yi la war ci moom xelam la doyloo ci digganteem ak ndeyam ak baayam xelam la doyloo ci digganteem ak sëriñam xelam la doyloo ci diggante ñu ngi di ci seetlu lenn la ko yàlla wax bu boobaa sa alee ka nafsi ba laa yadru ko man bala ina sarit bu ko waxee nag na nga jàpp sa diine yow keneen ku réer du la war nga yem ci sa bopp ndax li lay wax dootu jëriñ dara du jaajin sax dootu jëriñ dara rek waaye mën na laa war lor ndax yonente yi daan rey yëpp tere nit ñi li seen bakkan bëgg ma lakkal leen dana tax xat ñu xatal leen ñu dem di leen rey mu dem ba jamono àggale ni koo xam ne dañoo am ay xeeti nit yu bokkul ci ñun duñ sikkloo duñ ko mën ñu sikkloo suñuy doom ak suñuy jarbaat di leen sikkloo ci lépp loo xam ne dafa xeetoo diine di wàcce daraja yi lépp loo xam ne dafa xeetu diine bi lislaam ne affaire dana góor ñaar jigéen benn ñu ne déedéet góor jigéen yam nga ne naa leen ni sama doom ñu ne la am na nangami at libre na majeur na nga ne naa junni wala naa weer wala ku tardé nga ñu dem ba mbooloo dana daje nga nit am complexe ne man day nangam laay def ndax mooy lislaam dana dem ba toog ci seen bopp ñoom ñu ciy gëf ci dem ba xam ne lislaam da duñu tuub ñun ñi nga xam ne ak duñu fenn ñoo ñu wax naan tubaab yi dañoo ñor ba xam ñu ne ñor aguñu daal di xam nga ñëw àgg boo fenn ci àdduna science ak technologie xamagoo dara xamagoo dara nga dañ fab jàngoro yi nga xam ne science leen tànn ba ñu réer nga tànn lañ yëg ci ñoom li ñu tuddee ne ko ci développement nga jël ko yow def ko muy lu fort nga xam ne lépp lu jógee soow lu jógee ci tubaab ya foofu nga ko même bu dee ay toog da ngay tànn la xam ne ci tubaab ya la toq ko li nga xam ne sa taw maam yi la nga rus koo jëfe wala nga rus koo xam ne wala nga rusam war a yëman naa ko ñu dem ba nit di am complexe ànd ak ay moromam ñu teg ndox mu ñu xaraamal di ko naan ngay niim am ndongo wala ngay niim naan naan nga dëkk sa kaw ga dañ jox la sigaara nga tox wala jox la sàngara nga naan ko ñu dem ba àgg ci di sellal di sant di yëkkati lépp lu sox lu bees tudde ko modernité lépp lu moderne moderne ñu ne mooy li gën te li ñu suñ xel jëndoo ci ñu seet li baax ak li bon ñu xàmmee ko seet ci l'islam li ñu dugal ak li ñu tere ñu bëgg a tàggat tubaab yi nga xam ne l'islam dafa yéex a àgg fa ñoom ñu umtale woon ndax diggante boobu mooy naat xew ñu dafa réere woon tenk ba ñu bari ci ñoom defoon nañ ne Muhammad sallallahu taala wa sallama statut wurus la boo xam ne dañ koo tabax teg ko ci kaw ñu wurus mu nekk ci benn tàmpal ci kër kër jàmkaay yàlla yi ca sax ñu ëmb la woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ëmb la turam ba di ko tudde maawund ba ba xamaguñ sax maawu bu mu di wax ñu defe ne prêtre la woon boo xam ne dafa avancé ci diine chrétien ba déposé candidature pour nekk pap ñu énonce ko baatar ko mu daal di nekkoon saa nekk dissident waaye mu nekk dafay ab chrétien loolu yëpp ñu umpale woon ko ndax diggante chef ak xarab maanaam diggante orient ak occident ni ñu créé woon ak ni ñu umpale woon seeni borom xam-xam di dund ci l'islam ak ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ay bitis ay njaaxum yoo xam ne léegi ñoom seen bopp rus nañu ku ne kuñ ci ne sama ma dundeen lii ñu dem ba nga xam ne gëstu yu bari yi ak thèse yu bari yi ñuy défendre di gëstu di seet xamal na tubaab yi ne diine ji dëgg te wér mooy l'islam ñun ñu bëgg a tardé ba roy leen te li yëg ñoom sàggale suñu l'islam moo nañu dem dana fenk kaw bu mu ne la ci mujj jamono dem ci fenk ne kaw ndax mooy lan mooy bidaa bu sori bidaa bu mag bidaa bu maxale bidaa bu diis bidaa bu alak ñu ñëpp mooy la baaxoon ñu def ko tey lu bon loo xam ne rus nañ koo def la bonoon ñu def ko muy lu baax dem ci fenk ne kaw kon ñu war na génne suñu xel xam ne damaa boo bu nekk dafa am la mu xam la mun waas waxi ne فإن من يدعي في العلم توسعة حديث شيئا لغابت عنك أشياء في وقت خم خم بياتي نفا عند الله خم أم يبر من اللمس من جاتنا يكريه دكتور بيكو انجينير لك ولا اشتريه بيدين لجزاتور لك كان كنا كان دفع أم الله خم يهدر wax ñoom gën a xam àdduna ndax suñu jaar dañ faa jaaragul waaye nag taxul ñu xam ne umtale nañ la gën moom diine islam te ñun nañ la ko yàlla jox buñ ko umtalee nag ba sàggane ko kàdde la ñuy indil ak altule ëllëg ak tey waaw dañ gis ne tubaab yi ñi nga xam ne umtale nañu mbiri diine ndax Europe jël na Amérique waaye Europe ci boppam su borom su fay yëmut yeneen kon loolu lu lu yel la ñu umpale diine lan la ñu xam science science mën la teg ci problème yi ci àdduna yëpp scientiste yi am na wax demoon nañ ba tollu jamono boo xam ne foog foogoon nañu loolu waaye ñoom suñu bopp demoon nañu ba xam ne waxtu woo xam ne science résoudre na problème posé na yeneen i problème yu bare bare bare ci yoon bi te bari problème rek la résoudre ñu gis ne kon dem nañu ba am na ay bind yoo xam ne suñu borom fas na leen yéene gindi ñu dem ba science gindi maanaam xam-xam gindi leen gindi leen waaye xam-xam boo xam ne tàmbi ñëwul ci ëkra ci tànam du ëkra kon du gis mu rabbi ka xam-xam la boo xam ne du nekkal yàlla du wane yoonu yàlla du wane yàlla xam-xam bi nga xam ne tàmbali kaawam mooy ëkkat bi ñu rabbi ka léegi xalaat mooy xam-xam bi nga xam ne mooy wane ab jaam boromam moo koy indi texe tey ak ëllëg li ñu ko science moom kay doon ko kenn ci tajriba la aju man expérience kenn mu ci woon kenn waaye nag am na xam-xam boo xam ne jaar bu sell rek la ko sama borom di dénk xëy na ñu ànd ci waxtaan bi kon bu ñu dem ci seen kanam kaw wala xal xalu alayhim axrajna lahum daafatan min rabbikal mu'min min askanu bayatna la yakunu wa man ahsanu minkum min qawlin min yakun bayatna fa yuzawna yëpp ñu di jamono taxaw nañu gis ko taxaw nañu monsieur Badiane waxoon nañu yaa jóge ak maa jóge li ci bari ñun ñu dem ba àgg sa dañ koy ndax waxu yonent yi day nekk li tubaab wax parabole maanaam ay misaal ay néegu la danaa ko misaal misaale li lay wax ne la léegi néeg bu ñu taal bi boo ci duggee juma daf lay joxañ nga dugg ci néeg bu ñu taal wala naan la da ngaa néeg bu ñu taal sa bët bi xonk col xam na loolu ñu jàngal science mënuñu laa misaal wala tamit mënuñu ndéeloo ci borom am ay bërëb yu gis maanaam ay pepp yu yu xonq ak yu weex ak yu tënd boo duggee ci lu mu weer di leer dugg ci lëndëm wala ngay safaan bi ah doon yu xonq pepp yu xonq yooyu dana dee ci diggante bu ko defee sa xonq sa bët day xonq noonu la nag yéen a gis ñu yéeme la yoo xam ne am la ñu askane ko ci jinne ndax jinne lu yéeme la ba jinne ragal loola ne la boo duggee ci ne jinne taarim bi jinne daf lay joxañ te fekk jinne ñëw ko mun dañu mën nañ la ko misaal waaye gannaaw sa xel addité te bëgg nañ nga ragal ko ba doo ko def noonu itam waxi yonent yi alayhi salaatu wasalaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ndax ni ma asira indiyaay umar naa am nikam naa ala xadri ko xool ñun mbool yonent yi su ngoon daf lay digal wàcc ba tolloog muree doomu aadama yi ngeen mën a wax ak ñoom ñu ne misaal yu bari ci ay léegi bu ñu ko déggee nag ñambaat ba gisee mën na nga ak ci ko duñ ko wut nag ñu waxee woon ne monsieur Dajjal ñu ko misaale woon jëmmale boo xam ne day gudd lool benn bët lay amee bu ñëwee day ànd ak ñaari malaayika malaayika bu ne man maay borom bi maa bind jàmm maa leen moom bi malaayika ne fan nga bi malaayika ne wax nga dëgg damay wër mboolem pàcc foofu yi fu dul Makka ak Madina mu ne bu karawgee dana am ñeent fukki gis ci démb bi la nga wootee nekk su nekk su borom moom te ñeent gis yi danaa guddee ne ay weer juróom benn weer wala at bu gis dana mel ne weer yi am na ay bés yi ci def mel ne gis yi loolu lépp ay misaal la yoo xam ne ñun dégg nañ ko am na ci yoo xam ne dégg nañ ko waaye di ca gi ne dund nga xam ne itam noonu day amee àjjanaam ak safaraam ku ko topp mu dugal la ci àjjanaam waaye yaay dugg ci safara suñu borom ku ko mooy mu dugal la ci safaraam loolu lépp yooyu gis nañ ko am na ci bari yoo xam ne sax dina ko misaal am na lu tax dina ko misaal waaye ñu ci li tax li ñu tax a jóg moo di ne rek ñu doon tekkale ñu di jamono ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ana wa naqasi waqasi yaqiyamu saati hakada maanaam wax ñu la yéen ak wax ci waa adduna tukki ñu lay soriante tuuti mu dem bi mu génn jant bi di xonk toll fii ñu ne fii jant bi toll ci bis bi ci ban ko ba mu tàmbalee dégg nañ ko fii ñu fi toll nga xam ne li ci des bariwul noonu la adduna foofu la yem ci li ci des ak lu weesu ñu paree mu gis ne adduna yàgg na yàggaay boo xam ne mënuñu ko wax daa ñu misaal ñu aadama yëpp suuf si ñu ñëwee seen xam ñaata milliards at la de waxtu wu nekk atmosphère bi ko ëmb loo xam ne lii ci ay mbindëb moo ndax moo jubóo maanaam moo mën a bind ca waxtu wa yooyu di fa bind mu ay rab yu kéemaane ba mu yàgg ay gannaaw ba ay malaayika ba ay doomu aadama di fi dëkk ba doomu aadama yi di soppi pour nga aj suñu àgg nañ ñu ngi nga xam ne seen xamantal la waaye ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam misaal na jant ba nga xam ne mu ngi toll ci bind doxoon li mu weesu ci bis bi ak li ci def moom fi mu toll moom yonent bi sallallahu ci jamono boobu loolu noonu la adduna mel ci fi yonent bi sallallahu toll woon lu des ci saa taxaw ak la mu weesu noonu lañ ëppantee te loolu yëpp dana xamal ne bu ñu waxoon ci taxaw saa noonu ñu waxoon ñu ne saa du taxaw mukk lu dul jigéen du sangam bu jigéen loolu itam gis nañ ko ndax génn dañuy ragal seen doom ñoo ba seen toll ndax doom bi bu ñu éwé ne jàng na tubaab def na nii mel na nii mel na nii loolu da ngay laaj ko bëgg a fab yëkkati ko bu tegu ci sa kaw bopp def nga lu xaraam ndax loolu bëgg nga lu yàlla tëraloon tëral la neen loolu bu ko tente ne ñoo ngi koy wax ñu ci kaw loolu ay junni doomu aadama yoo xam ne dañoo bëgg a yàlbati adduna dañoo bëgg a fab ci jant bi alwaan yi guddi yi indi fi leneen man la mel ñu bëgg a def mooy mën suuxal alquran ak l'islam taxawal leneen loo xam ne ñu gis ci ay junni yoo xam ne xam gi ñu xam doole l'islam loxo yi mu nekk di ñu ñu doyadi te ñoo ne gis bu ñu ko xamee ba topp ko nañ ko war a toppee adduna bépp la ñu tiim ñu gis loola ñu yàlla pexe yi di jeex am na ci pexe yi ay concession yoo xam ne ñu mel ne ay diine te du ay diine ñu ne ay dina ak ak ak ay dina ñu leen bind ni ñu propagande di campagne di wax ni ñu di leen xëcc jëm ko loolu la loolu yëpp bari sama sallallahu alayhi waxoon ni ko ndax benn bis nañ la sallallahu alayhi wasallam dina suba dina suba toog ci mimbar bi di xutba di xutba di xutba ba tisbaar jot mu wàcc julli tisbaar ba noppi génn siwaat nit ci kaw mimbar bi di xutba ba takkusaan mu wàcc mimbar bi julli takkusaan génn siwaat di xutba nee na keroog képp nit koo xam ne ci àdduna da nga jóg fukki nit topp la wala nga def ci loo xam ne ay nit daañu ko gën di ca topp comme di adiyé tudd nga sa tur lay ak sa tur baay waaye xam ngeen ne arab yi xamuñu tur yi ñuy xëy léegi ñu nga xam ñu la ku ci nekk la nga ca jàpp jàpp la ko la nga ca umpale umpale la ko sallallahu alayhi wasallam wóoroon na ko ne lii di jamono dana ñëw te dana bari loo xam ne lii day ñëw ngir yéeral jaam yi rek ndax lii wax na ko yàlla alagee jëne ko ci diwaanu malaayika yi dafa jënoon ne dana seetal safara moo booba la jomb woon suñ doon jox ko kattan boo xam ne ëpp na xel ëpp na xiyaar lii jikke doom aadama yàgg nekk gannaawam kanamam ndeyjooram càmmoñam kaw suuf loolu moom pexe mu nekk rek dana ko dikkee pexe mu dana ko dikkee ngir xañ ko pexe ëllëg maa ko defee ñun ñu daal di topp màdd maanaam matière ñu màdd climat yi suñu borom def ci suuf ak ñu def ci kaw asamaan yépp dañ koy romb te dañ ci am soxla te lu nekk mën na yéen jaam lu nekk nit mën na caa jëlee waar goo xam ne bi bi mën a jëlee ci alquran waar bu ko raw لك القرآن وكأي من دابة وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم على موردون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون يوم ترك بكورة تخ مخاخة البقري لحمون نون بقر نون أخمن أعداء أعدائك ولا أعداء أدنك نفسك التي بين جنبك الله ينبي صلى الله عليه وسلم ورنا تنم في البقري من دون خلف ndax ñooñu ñun mooy genn wàllu diine mooy genn genn wàllu diine ndax ñu ngay def ba mën a waxandi ko ñu la tere lépp ñu ngay mën a def ba def ñu la sant lépp ñu koor ñu julli ñu ko mën a doon ba ngay ñu lépp kon ñu mooy genn wàllu ngëm bakkan nag di noonu doomu aadama boo xam ne bu taxaw moom la te ba ñu koy dugal ci lu neex ci moom la te daf ko ci gën gën ko ànd ak kàttan dama dama war a xam noonu bu bakkanam noonu moom ñu gën a gën koo xeex kon suñ toll war na góorgóorlu ndànk ndànk war na gis bu baax duñ ko xeeb dara ndax toog ba yàgg nga la ilaha illallah wala nga astaghfirullah wala subhanallah wala alhamdulillah wala akbar wala hawla wala quwwata illa billah al ali li mu gàtt gàtt bu ëllëgee bu ko xëyee du ko xeeb mukk te itam du ko faralee di def ndax diine doo ko jiital diine doo ko jiital ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na diine jii lu ñu jàpp la kenn du bëre moom maanaam du ko gënee diine jiital lu ñu diine nopp na la kon nit ki xamal toll rek lan mën daf koy def waaye buñ tàggal bu ko toll nag tol na koy def ba yàgg ci daf koy gën a mën a yokk rek daf ko gën a mën a yokk maanaam bu dee xeex bakkanam itam day gën a day tàmbalee ci bàyyi yi mu gën a mën a bàyyi te ñu gën a mën a lore bàyyi boobu bu ko tàmbalee boobu soo ñu ko woorloo koor bi dañ koy tàmmal ñun ñu bëgg tàmmal ko ñun ñu bëgg ñun lépp ñu bëgg dund bi daf koy gën a gën a gën a yàlla moo tax ñu sant ko koor ak julleeg mboolem gi fi gi fi topp yëpp ndax gi fi nekk day seet xol foog ñu seet xol nag wax wax na nit ki ñu ngi def gis jooju te xolam tuuti ñu nga xam ne gis ko doon ware benn daf ko xamul ñu ko laaju wala mu xam ko tàyyal mu delloo ci boppam xam ne koy li xamal ko na bari ak jéggal bu mu toll astafirullah alim dina koy faral di bari dana tax mu jëte yërmande yàlla dana tax xolam nangu leeru yàlla na bari ak toroxlu toroxlu amul dara lu mën a yëkkati ab jaam yëkkati dara jaam fa yàlla ñu koy toroxlu ak nangu dëgg ak wax dëgg wax na nangu dëgg wax dëgg ndax wax dëgg am nangu dëgg bokk na ci mandara lay texe daan ko wax léegi ay misaal bu soobee yàlla li tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam man nekkal di aji xam wala nga nekk di aji xam lu foo toll wala nga nekk di ciy déglu ci xam di wax wala nga nekk ci sopp ñooñu la waaye bu nekk ci ko juróomeen ko kon da ngay alko ndax ci xam wax ñu wax ñu koy déglu xëy ñu koy déglu kenn du leen bindal bàkkaar bu ñu ko jógee foog li mu doon wax am na ci lu def ci seen xel lu def ci seen xel ñu ko fàttaliku wala ñu fàttali dara ci ñu def kenn du leen kenn du ko bindal ci bàkkaar ba waxtu wala la di dem ci moom bu ñu jógee jumte nga xam ne xam ne man ma xale ci l'islam moo ko tax a jóg jógee ñu ci ba ñu ñëw ak ba ñu dem yëpp dañ ko koy bindal ay tiyaaba bu kaw bee léegi nag bu ko teel yow nekk nga aayum xam nañ li mu doon wala ngay ci xam lu ci xam lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ci xam lu moo xam dafa nabu ci leen dem ci sëriñ bi wala dafa dugg ci école bi di xam lu l'islam wala dafa dugg toog di ko laaj wala dañ koy wax mu di ko déglu comme ku mën doon rek mu ko àllim nga yaa ngi xam lu ak yi xam lu nag nee na malaayika yi ñi nga xam ne moom boo sante ñu naan la lalal naa la fab musoor wala mbubbam wala kaalaam lalal la ko noonu la malaayika yi def ay laaxam ci nga xam ne mu ngi xam xam xam xam di dem ci yàlla noonu la ko suñu borom di koy ngir jëf gi ñu jëf ci li mu jëf kon mu àllim gannaaw malaayka yi ba ci julli ci jégg sax dañ koy jéggalul sa borom kooku ay bakkaaram dana set kooku kon ku ma ko doon la wala kii déglu kii déglu itam moom aju bokkaale ci xam lu la ki nga xam ne julli yi xamul jàngiwul waaye sopp na ñu xam kooku itam ndax moom ñoo may waaye nag ki ko juróomeel mooy ki nga xam ne faale na ko amu ko soxla yàlla jërëlu ko dara nee na juróomeel baa ngob boo ko nekkee da nga alko kooku moom mooy ci alko mooy ci yàlla jërëlu dara lu jëm ci yàlla jërëlu ko dara boo jaral na ko fanaan jikko waaye wax yàlla jaral ko ko xam nga doomu adama xare war na am ci jàpp ci loxoom maanaam war na am ku koy won yoon war na am ku koy fàttali war na am ku koy julli war na am ku koy jubal di ko teg ci yoon ban muy sëriñ bi nga xam ne moom la yaakaar ci moom lay sof di ko jaar di ko delloo ci yàlla wala muy sa àndandoo boo xam ne ku jubla ba noppi ngay roy ci moom wala bu fekkee ni dent gën laa jubit bëgg na lu baax ne yow ngeen di fàttalante fàttalante di di dajjante di do bokk di dellu ci yàlla kenn ku ci nekk sa morom dina ñëpp lii ci yàlla ñu war ko ko way ixwaan leen ñu mën ko defal wax wala nga def ci ngay tànn di faral dem ci mbir yi nga xam ne maanaam béréb yi nga xam ne lu baax dafay dégg lu baax dafa nekk lu baax la ñuy jëf loolu lépp bokk na ci ñuy raxas xol ba mu set kon barkat ñoom ñëpp bokk na ci ñuy dimbali doomu aadama bi xam kon nit ki war na seetal boppam bis joo xam ne daf ko sàkkal waxtu bu jotee mu def ko donte dafa ne man toqtaan bu nekk danaa jàng nangam jib wala danaa def nangam astafirullah wala danaa def nangami saratu alayhi wala danaa jàng nangam asay ko defee nga xam ne daf koy saxal ba faw ndax suñ tubaab ne waaye sa sëkkal ba wa huwa ma uddi min huwa in kulli la xaaril xakul ak bokk na ci yi nga xam ne gis ñu gën gis bi nga saxal ndax day setal xol am ko maa wax nañ ko ndax dama adama ñu ñetti xaaj ñu rek lañu ashaabu shimaali ak ashaabu yamini ak al muqarrabuna xadis naa ñoom ñoom nitu gàtt yi bu duñu baax duñ ko jaralu leen dara jaralu leen yàgg fenn jaralu leen sonn itam ñooñu nitu baax lañu nitu xay lañu nitu torox ca lañu ëllëg nitu doyadi lañu ak xam ngeen ni mooy daañu nga xam ne nitu barke lañu ëllëg xéewal ak barke ak ñu bu leen suñu borom di teertoo mu xare ba nii mooy ni suñu borom jëgañal boppam mooy ñu jiitu ci yëpp ñëw ñoom jëgg nañu maqamatul yaqini ba jeex suñu borom ba def taxaquq bi ñu di rogu bi xaqaani mooy gaa ñi nga xam ne gannaaw ba ñu jeexee ci yàlla ba xam ne ñu dara ñane ci sapp su ndëkk sa ci roo ñu sell xam seen borom ñoo ñoo ñoo formé sapp su ndëkk sa ci suñu roo yi ñoom ñoom ñi nga xam ne suñu borom itti woon na seen mbir suñ agali fekk ñu jiitu ba mu bindagul la sàkkoon ay xaritam bind roo yi takk ci yoo xam ne daf ko sellal ngir boppam roo yooyee dara amul ci ñoom wàll lu dul yàlla yàlla dëng leen moom ñoom itam ñoo gis ko dund lu dul yàlla ñoom ñoom ñi nga xam ne àgg nañ ci dayo mag ndax ñëpp ñu dugg ci àjjana sifaatu laati ñeneen yàlla yi ñoom ñoo taxaw ci daraja yi daraja yi way taxe yi waaye ñi nga xam ne yàlla leen bëggal boppam tànn leen xëcc leen ba boole leen ci boppam ñoo nekk ci jannat ci jaat ci jannat ci jaat ci àjjana yi jëmm suñu borom tabaraka wa taala ndax na xayaati bi xayaati llahi allahu baatil min jinan illahi la tax ñu ne yajibu min inda malik muqtadir kullu yawmin min jinan muqtadir ñoom ñi nga xam ne àgg nañ ci gën jaa këru dala yi mooy ñi nga xam ne seen dara dara ñu ko gënaam dañ dem ñi nga xam ne doomu aadama xelam dafa nekk di ko ñu dama di ko liggéey xaw su sol ñu ko liggéeyoo ci njëriñal àdduna am pàtte njëriñal alaxiraam bu ko rëy di waaye xelam xelam yooyu ko ndax mooy sabab fexe ni xelam kon doomu aadama am nañu lu gën lu ñu tuddee makaar bu axlaaq melay xol yi ñu sànni nga melawoo ko sallallahu alayhi wa sallam maanaam dëkk bi ci gën a jege bu ñu njëkk a joxe ne waa ku man xaramat la ku man xataat wax ko am nan xataat man xaramat ñu nga képp ku lay xañ bu ko xañ yow nañ koy jéem a amal nañ koy jéem a amal dañ nga di ko jox wala nga di ko xam ne mu amee képp ku la dagg rek bu ko dagg yow ñu la jox ko moom ku la tooñ nañ ko jéggal loolu mooy jikko yu gën a jot moo tax saa yu ne uhibbu makarim al axlaaq jëf bi wa akrahu an ayuba wa an waaba وأخطأ أن استباب الناس حلما وسر الناس من هو استبابا بنا فق بكل رفض يولو كم سنة قتل وعلى بنا عبدان بأيب الكل ولا مدنا أيب بنا جد الكل يتني كل يفرق وعلى كل سنة من تبدو السعد عن تلك ختمتك خالف لكم إلى حرامنا الكلام القبيح من جرانا بنا عبد الله خلينا يقوم أخذ نفس الياقة من دو من السعادة سعادة من وسط الجنة فأنت دائما وعلي باللسان قول الخير تجد به وصفت كل ذنب وقول كل ذنب عمل كان صلى عليه رب إيمانا بنا بنا بالبجاء تحيط لمن لو كمل لمن لحظ الله الله ركب فعلا يوكي تجري ندم بعد في زمن جو خمي جي يتبجاء من جنبارم لو سعلا مرغن مرغن كان ممكن تسكو dañu wax loo xam ne nii lu ñaaw ci dëgg la lu ñaaw ci jëmee ko ci sax yi li ñu war boppam ci bu ko yëpp ñu mel rek sangam boo xam ne day taal mbokk yi dañ koy taal rek muy seey mu ngi seey kon damaa dama bokkam ci tegg ñun kër yëpp mu tàmmal ko lu rafet war boppam bëri mër bu ko defee rek lépp lu di texe luy xew texe rek yomb ko waaye bu ko deful safaan daal yonent bi salaa sallam dafa mas ne ay ajisu ahadakum an yakuna ka abi damdam na ado dam dam lan la defoon waxtu ñu génn ñëgam dafa naan sama bor bii de sarax naa ko jaam yàlla yi lu ma waaye wax daal naa ko ko nga xam ne kooku mooy moo ci waxoon na wala qad amirru ala la in yasubuni wa aistu summa aqulu la yaamini danaa romb aji soxar bi dina saaga wala mu dina xas dina génn dégg ko waaye bu leen di waxee sax dama naan ko waxuma danañ may wax yéen a ko jéggal jéggal goo xam ne bi sax lay doon du sax afoo waaye sax lay doon kon dama man dañ nga xam ne jéem la yar boppam jéem la tamit lu bon lu dul ko ay amandoo yu baax seetu béréb yi nga xam ne béréb yu baax daf koy dellu ko da ko wàññi ko nit mu di fa dem mu dul fu ko neex dem lu ko neex lekk lu ko neex wax lu ko neex àndal bu waa dafa ne day yaa saa kul naa si ita tafal mistahu wa xaar la nañ si ita sax du sëpp la lu la neex lekkal waaye lu ne mën nga lekk ngay jëf ba ba muy rees ba la ca lu xaraam lu xaraam ngay jëf ba ba muy rees ba dab dara ja jigéen ci yow ku la neex àndal waaye na la wóor na ki ngay àndal moom rek la du comme nga amee aw nga amee. ñoo ngi ko بدل آدم لا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ay wala man ak ñu xam diw dina ko xam dama xaritam man wallahi yéere ñu ñu dugal dama ci yaru ban dama ci dañu ñu tay dal ma ko ñu ci dal ya wala ta ya wala ta xatuma arrasul sabilan ak ñu xam na topon yoonu yoonu ci ñu yëndu woon man la abdu zalim ala yadihi yaqul ya lakum tahtuma arrasul sabilan kawlo dama mat ay baamam ngir yëccu ak ñu xar ta kaw ñu wéet léegi nag kon doomu aadama si ay roo ay noon di ko defee ci àdduna mën naa dabaatal mbiram dabaatal mbiram ni mu koy defee mooy tuub lépp lu mu defoon te faral di toog jotaay boo xam ne day fàttaliku lu mu sàngaloon ak lu mu tooñoon di fàttaliku ñi ci jaariwul juróom ñëw di xalaat nekk ci kanamam muy sukkuraat muy bàmmeel muy bisu becc ba muy torof taxawaay ba muy jéggi siraat mu ne lépp mu di ko fàttaliku di dellu si di fàttaliku ne xamul tey ñëpp fa ne ko defu ci àdduna wala na ci waxtu xam nga tax dafa mu ñu ñu ragal mbir moom ñëw sopp ko lu gën ñëw ñu ñu ñu ko dal ndax alquran yow yàq an zikri rahman mu xaj lahu shaytan mu tahu lahu qarin képp koo xam ne wala gannaaw ci yàlla dañ takk shaytan soo xam ne dañ koy takkaleen moom te du mën a tàlla ñoom kenn ku ci nekk naan sa bopp ak neexoon masoro la ci àdduna ni penku sa rek sowu ni sowu sa rek penku mu ne xol am na ñetti al alak alak alak kat ñetti alake kat yoo xam ne dafa taxoo xol moo di nay bu ñu topp boobu ma waxoon sànq moo di bànneex bu ñu topp moo di kenn ku nekk sa bopp sa xelum bopp doy la ak sa xalaat waaye mu di naw sa jëf naw sa bopp mu di kañaan mu di rëy mu di ñàkk yërmande ci doomu aadama bu mu doon wala ci lépp luy dund muy dund ah teg sa bopp ci kaw ñëpp defe ne yaa gën nit ñi sëñ Tuubaa ne nag kenn ku leen boole wala nga melawoo ci lenn te tuubuloo ko sa jëf dañ jëf ju baax joo defoon itam bu keraloo dañ la koy delloo mu dal tudd xadis boobu nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam tudd na juróom-ñaari asamaan yi yëpp asamaan ku ci nekk malaayka ma ca nekk te benn ayib ci muy muy muy añaan muy njistal muy jëf yëpp koy ku ci nekk lañ la dénk mooy jëf ji ñëw jëf ji fi jaar na nga seet ndax xolu borom bi jëf jëf ji mucc na ci loolu fii nga xam ne kañaan rek lay seet bu jëf ji accès bu ci xoolee añaan dana ko gis mais ki doon jëf jëf ji añaan ko fulaw bu dee ki ko doon jëf bëgg àdduna wala bëgg daraja wala nay wala lu mu doon ci loo xam ne lii li ko ju bon la gis na ko ci jëf ja muy ci yoo tàmbalee ci asamaan su njëkk si ba fekk ci ak juróom ñaareelu asamaan ba ci ayib yoo xam ne dana leen romb ñoom ñëpp te duñ ko xam suñu borom ci boppam tabaraka wa taala ba nga xam moo koy xamal boppam fekk na malaayika yooyu di tagg waa jooju ndax mucc na ci juróom ñaari jëf yooyu nga xam ne mooy juróom ñaari melo yooyu mooy melo yu bon yëpp ba mu ko defee nag malaayika yi tàmbali di ko tagg suñu borom ne leen noppi leen xamu leen jëm jëf ji jëmm ji lu muy jëf jëf ji nangama taxoon te loola wér na leen yéen nag xamu leen ko waaye man xam naa ko moo tax mu ne ويا أخي الغيبة والرياء معا العجب والحسد والكبر معا وعدم الرحمة للإنسان وهو برهة على الأقران وكل من فكل جمعها أو احتوى واحدة منها فخاسر سواء لأنها توجب رد العمل إلى الذي عمله فلتحسنه mooy xadis bi taxoon sayidina moas ibni jabal jooy sëñ bi nekk na ko kon nit ki war na jënd si boppam di ko raxas jamono bu nekk war na lu muy bëgg na ko bëgg ngir yàlla lu muy bañ na ko bañ ngir ngir yàlla ku muy mere na la mere ngir yàlla lu muy gërëm lu koy neex ne ngir yàlla rek bu mu génnee melo melo yooyu wala mu góorgóorlu ci ba suñu borom may ko ci wenn melo mën naa sabab ak pexeem loolu nag matal ko mooy al ixlaas li ñu tuddee al ixlaas moo di sellal sellal nag waaye gannaaw sellal ji te gannaawam ay yeneen i daraje sellal la nga te yoo xam ne di tadd xiiqi yu jikko yu sew la yu sew ruuj yu naq yu naqaree xam yu biir la yoo xam ne jaam yàlla yi ñi nga xam ne xam seen borom la ak ñi nga xam ne matal nañu jihaadu naf si meloo nañ ko te muy jikko yoo xam ne yu jafe fekk ci doomu aadama la sidna omar radiallahu taala anhu jàpp na benn naankat fekk mu mandi mu ne ko mandi juróom ñetti fukki yar la ko yoon dóor lu ñu war koo dóor mu daal di ba ko si maamar jàppee mu saaga ko ñu bañ koo dóor ndax bañ na ne saaga yu ñu ko saaga xolam naqari ci mën na tax ci jëf jëf ji soppi ko maanaam mu mu soxare ko ci dóor gi wala mu dóore ko noo xam ne bu ko saaga woon du ko ni dóore te kon loolu du bokk ci sellal jëf Seydina Omar bàyyi loolu boole comme ñeneen ndax ngir sell ak ixlaas rek naka noonu ak maanu ak nangu dëgg gi ma waxoon ba tey sidna omar radiallahu anhu mas na daf daan li mu nekkee amirul muminin daf daan wëndeelu guddi di wër ngir gis nit ñi lott mu di leen dimbali gis kuy tooñ wala ku nekk ci lu warul mu yar la muy dem benn bis ba romb génn kër ci lëndëm gi dëgg ay hum hum hum mu xam ne fii ay nit a fi nekk te ñi fi nekk nekk wuñ ci lu jub mu dal di fu mu bëgg a jaar fekk ñu takk buntu bi ba mu dëgër mënu faa jaar mu dal di jéggi yéeg ca tàppaat ba dal ca biir kër ga bi mu dikkee dal di fëgg buntu ba xëcc ko mu dajji ko mu dal di leen di jàpp fekk leen ñu tiim tàng rek war a naan mu war leen a gisam am nga benn waay jub taxaw ne ko yow day buuru jullit ñi def nanu def nga wacc nga li la yàlla digal wacc na li la yàlla digal mu ne leen lu ma wacc lu ma def ne ko lu bari nga def suñu borom nee na waatul bu yëfa mi ne bu waa bi haa néeg yi na ngeen leen dikkee ci seen bunt yow jaarloo ci bunt da ngaa da ngaa tëb suñu borom nee na itam waxtu wa nga xam ne dikk ngeen ci néeg fa sallimu ala ahliha maanaam na na ngeen yëglu bu ngeen yëgloo maanaam nga ne asalaamaaleykum a adxulu ba muy ñett yoon buñ la ne duggal nga dugg buñ la newul duggal nga dellu loolu di fuloo ko da ngaa ñëw daal di sàq bi gannaaw ñetteel bi suñu borom tere na rajo wala ta gis ci wala yaqtu ba'du ba'dan te rajo nga noonu ndax yaa ngi jóg guddi di ñu topp ba gis lii sidna omar ba tey jëtanu ko bu bàyyi ko waaye waar na leen tere na leen loola ñu doon def bilal ibnu xaaris nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci defaru boobu am ñàkk a defaru waaye dana wax benn baat rek ci ngërëmal yàlla du jàpp ne mukk baat bi mu wax dana am lu ci topp wala lu muy dana ko xëccal dara mu indil ko ngërëmal yàlla loo xam ne kenn foofu ko woon mu ne naka noonu waaye ci ñàkk a woyafal dara ci lu baax ak ci lu bon mu ne ba waaye itam dana wax benn baat boo xam ne fii lu naqar yàlla foogul woon ne dana àgg fa mu àgg mukk yomal xiyaam mu gis ne àgg na foo xam ne xalaatul woon ne lu mel noonu dana mën a am ci jóge ci lu toll noonu rek mu ne itam doomu aadama dana wax benn baat du ca nam lu dul reeloo ñi muy waxtaan ak cëpp yomal xiyaam dana ca xalambaaye ci xuri xuri safara juróom ñaar fukki nawet tax suñ borom nee na moom gannaaw nee na lul daray doomu aadama afa xalitumu anama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna laa turjiuna ndax da ngeen a jortu ne dama leen a bind ci porek wala da ngeen a jàpp ne du ngeen dellu si ëllëg si man ma xisaab leen seet seen yëpp yu baax ak yu bon ay axsibul insaan in taraka sudan ndax doomu aadama dafa jàpp ne dañ ko bind ni rek bàyyi ko boyal ko rek lu ko neex def te dara du ca mujj déedéet loolu mënu la am kon nag bokk na ci jikko yu rafet yooyu le jéggale ndax yonent bi salaa sallam nee na manub tuliyee fa sabara wa utiyee fa sakara wa dullima wa xafara wa zalama wa staxfara ulaayika lahum lam muhtaduna daf ko wax ba noppi ne fat ñu ne ko ulaayika maa lahum mu ne ulaayika lahum lam muhtaduna képp koo xam ne suñu borom natt na la nga muñ mu jox la nga sant ko ci lam la jox ñu to sa morom tooñ la nga jéggal ko nga tooñ sa borom jéggalu ko mu ne ñooñu ñooy ñi nga xam ne ëllëg tiit ma du agsi ci ñoom tiit bis bu metti ba du agsi ci ñoom ndax ñooñe gaañu yàlla jubal nañu kon nag dimbali sa mbokk jullit loo ama am solo la yëpp ne mbokkoo na la nga mbokkoo ko yëg ne mbokkoo nga ko mu mbokkoo la bokk na ci li nga xam ne moom lañ santaane te suñu borom denc na ay jagle yoo xam ne ñi soppante ngir moom rek la koy denc ëllëg ci fa mu gën a tiise fa mu gën a mettee la leen di defal loo xam ne du ñu yëg ñoom tiis woowale du ñu yëg taxawaay bu yàgg ba du ñu yëg njàqare la te njàqare la lu tiis la mas nañ ko waxtaane ci ay conférence conférence waaye ñooñu nga xam ne dañoo soppante ngir yàlla suñu borom daf leen di beerndeel ci béréb bu gën a tedd bu gën a sell ñi tiim waaf ci tong ba ba buñ fa jógee ñoom dañuy laajte kañ la saa di taxaw ñu ne leen weesu na ana fu ngeen nekkoon buñ ko jógee rek dañuy dugg àjjana danañ sa borom boole kay defal sa mbokkum jullit dara lu néew néew ngir yàlla ak lu mu tuuti tuuti suñu borom daf ko réer lool dañ tubaab bu lim na ko misaal ci ñaam ba tudd ci te bëtu si si maanaam dàll yi dàllu nekk yi sa mbokkum jullit sol ko ba waraw yi dagg fasu yi dagg nga jox ko buum mu joxe ko wala mu yor baatam ci teenam bëjam jotul nga amee ak bëj nga may ko ci wala nga abal ko mu joxe ko ba am ndox ak sarax soo saraxee nga xam ne dana set juróom-ñaar juróom-ñaar fukki dee yoo xam ne yi dee yi ñaaw la yoo waroon a dee nga xam ne dana war a sagal doomu aadama bi ay musiba yi ko waroon a dikkal yëpp ci at mi nga xam ne dana saafara itam taw aji tawat moom sarax nga xam ne itam keroog bis penc ba ñetti cer ñi am sarax mooy benn bi ndax doomu aadama bi ci nekk bis bu ñu xëccee jant bi ba muy waaj a laal bopp bopp yi ya nuur yuuri doomu aadama yi di xet ñi xuus ci seen i ñaq bu keroogee kenn ku nekk ci sa keroog sarax ngay seeloo ndax ñetti kër yi fa am benn bi mooy liwaawul xam bi yonente bi salaa sallam ak i saabaam ñoo koy seeloo di def zindul arsi mooy kew aras malaayika yaa koy seeloo bu keroog yow doomu aadama bu nekk sa keroog sarax ca ngay seelu kon nag sarax mat naa bari gannaaw yi muy def yépp dafa bari lool kon ku la ko ëpp de raw na la naka noonu ku nit ko xaax tandi ko tof di sax nga tuul ko rek tiyaaba la joo xam ne kenn xamul na mu toll naka noonu gëj woo xam ne da nga ko dafa nekk ci yoon war a fakkatal nit ñi wala dégguy jame wala lu mënu doon nga randal ko te nga xam ne yàllaa tax ngir bañ mu lor nit loolu lépp day tax ñu jéggal la sa bàkkaar day tax itam suñ boom yombalal la yoonu jub ba neexal am njub ci sa xol sa mbokkum jullit am lu ko neex nga ñëw ndokkeel ko bokk na ci yooyu nga xam ne yuñ fa te yooyu yëpp day fekk merom yàlla itam te dana raxas ñaaw ci fi nit ki neeñu bu keroogee ba nga xam ne yomal xiyam taxaw na ñu fab siraat gàcc ko ci jigéen jahanama nga xam ne jaam bu nekk bala ngay dem sa kër da ngay jaar ci siraat nga xam ne siraat moo tiim jahanama bu keroogee ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyal jullit ñi maanaam ñi leen defal yooyu njëriñ yi taw sawaan yooyu dañuy suñu borom day yebal yéene kat boo xam ne dafay wax ana ñi doon liggéeyal jullit ñi ñooñu ne noo ngi nii yéene leen aw leen yoonu àjjana duñ fa nekk yooyu yëpp ñoom te bis boobu mooy bis bu nga xamee ne nit ñi dana metti ba doom aadama yi kos ci defe ne dafa màndi sàngara bu keroog nga xam ne yonent yi seen bopp kenn ku ci nekk waxtu woo xam ne safara rëcc na daañu ko amee woon ba gëdd jaam ñi daañu laxasi ci peere aras ñuy laxasi ci ridoy aras muy yonent yi gën a yàlla gën a fonk ci yonent yi ibrahima moussa isa ibrahima fàtte na ismaila moussa fàtte na imran fàtte na haruna isa fàtte na mariam ngir tarab bis ba ak bërëb ba ak xew xew ba fa xew nga xam ne yow taraw na tësalu kullu murdiatin amma arbaat nga xam ne jigéen ji dootu tal sax doomam ji mu ji muy nampal nga xam ne ku fekkoon nga ëmb da ngay dal jiw sin saa si nga xam ne xale yi tuuti sax dañuy bee jaaw ngir tiitu bis ba bis boobu jar nay xalaat ñun noo kenn gënunu war na ko gën a xalaat ñun nga xam ne dañoo dikk ci jamono ji gën a fis ci jamono yi jamono ji gën a jaxoo jaam jafe jaam yàlla jamono ji gën a jafe sellale jafe jamono ji gën a jafe bëgg lu baax jamono ji gën a jafe wan gannaaw yépp lu dul yàlla lu tax waykat bi ne ata zamana banuuhu fi shabibatihi fa sarrahum wa atinaahu ala adam ñi am sànq yooyu dañoo dikk ci jamono fekk jamono nekk ci jamono ndaw wax waxtu waxambaaneem ñun nag ñu nekk ba mu màggat ñu dikkee ko bi ñu ñëwee fekkuñ fi ay sagara ak lu bon nga xam ne kon doomu aadama bi lépp tawru lépp étape ci ak dundam am na xeex bu mu ko war a xeex ngir mu ci ëllëg mu di xeex bu tiis boo xam ne bu yaasusee bukki reere ko bu sàgganee noonu te waxtu woo xam ne topp na bànnee xam nag jaan màtt ko nga xam ne li ñu tuddee rujuw la ak njàmbaara ak ngóora nga xam ne mooy li suñu diine ji digle mu di di sonn ba faw ci nga jëmale ëllëg rek boo gisee ñu ne te amal li dunyaaka ka annaka laa tamut abada wa amal li axirata ka annaka tamutu abada na nga jëf booy jëfal sa àdduna na nga jëf ba mel ne da nga dul dee mukk da nga fi sax booy jëfal alaxira na nga jëf ci farlu ba mel ne dañu ne la ëllëg ngay dee nan ngay jëfale àdduna ba mel ne doo dee mukk te suñ borom ne fa amma man taxa waa asara xayaat li yas inna jahima hiya almawa te ku ëffat adduna ëllëg jaana may sab te yonente bi salaa sallam ne adduna day gàtt bu mëdd ba xasaw ba ñu sànni ko ni mu soofe borom ni ni adduna soofe suñu borom a ko raw mu ne adduna dañ koo peeseet laafum yoo laafum yoo ba gën koo diis ci maanaa kon nan ngay jëfalee sa adduna ba mel ne doo dee mukk mu ne booy jëf da ngay jëfal adduna te nam ma àllaaxira maanaam li ngay jëf da nga cee nam njëriñal jullit ñëpp boo dee jëmbat garab da nga xam ne am nga at yoo xam ne ragal nga ne sax dootoo fi dundati at ngay jëmbat nga xam ne garab gi balay màgg dana tegi at balay meññ nga xam ne da nga koy da nga ko fiy def ngir jullit ñi ciy jëriñ boo ko defee ku toog ca kër ga am nga tuyaabaam la mu jëf lépp ku lekk ca meññeen ma am nga tuyaabaam picc mu ca lekk wala janax bi ca lekk wala mu dal ca kaw lu mu ci lépp wala kum fegal ngelaw lépp loo xam ne lii garab ga jëriñ na ko nit naka noonu muy lu muy garab muy teen wala jëf ju baax jur digle wala loo nekkoon di ca sonn ba ay nit topp la ca loola le nga xam ne da nga koy jëf ba faw ndax nit ñi nga xam ne bi nga nekkee ci bàmmeel li nga fi yoon bi nga fi xotti woon ay nit a ngi ci jaar ci nit ñoo ñoo ngi ci jaar jëf joojoo ngi lay fekk ci jamono ci am naka noonu garab yi nga jumbatoon naka noonu tabax yi nga tabaxoon te ay nit di ca jëriñu te xam ne da nga koo defoon ngir yàlla njëriñal jullit ñi loolu dafa mel ne da nga dul dee ba faw yaa ngi jëf yaa ngi jaamu yàlla ba fas yi ba faw waxtu woo xam ne nii yaa ngi génn sa néeg nga fas yéene képp koo defal lu baax képp ku la def lu la naqari nga muñ ko képp koo xam ne kii muñu nga ko sax def nga ko ngir yàlla waxtu woo génnee yaa ngi jaamu yàlla ba mu ngay dellu si sa néeg kon doomu aadama bi ni mu mën a jëfalee ci addunaam ba mel ne du dee ba mukk mooy muy jëf jëf yoo xam ne tuyaaba ja tuyaaba ja daf koy sekki ba faw loolu mooy jëfal ak adduna ba mel ne ku dul dee mukk jëfal ak nag alaxira ba mel ne ëllëg lay dee moom leer na ci bopp ñëpp ndax kuñ ne kii bu ëllëg kat ngay dee da nga xam ne keroog da nga farlu ci jëf ndax doo bëgg a dem te doo fekk lu bari ci jëf bi lay jëriñ ndax ña deewoon buñ leen neen lu ngeen gën a bëgg ci àdduna lañ naan dellu àdduna ndax lu mën faa jaamu bu doon ñaari rakka sax wala lu def fa loo xam ne bu dellu soo mu jëriñ kon ki nga xam ne àggagul foofa lépp rëccadu ko moom ci boppam farlu rek la war a def kooku nag bu fekkee ne doomu aadama mu ngi góorgóorlu bu def tabaxiya di yëwanal ay jëfam di yëwanal diggante jullit ñi yéene jullit bu nekk li mu yore boppam di def alalam ci yoonu yàlla kooku du ñàkk du am naqar du am tiis waxtu waxam ne ba kanam rot na ci lay gëj gën a ci lay gëj a gisee tiis ba keroog muy dugg àjjana suñu borom nag man wax ko rek fi mu ne deux heures kon buum yi nga xam ne mooy yeew taalibi bi ci sëriñ bi buum bi yeew wali bi ci yonent bi wala ci boromam bi ci gën a dëgër mooy al mahabbatu sopp kese sopp nag ku ko bëgg a def am na aw yoon ndax sopp adduna bii sax am na ay sabab da nga sopp dara ngir dafa rafet da nga sopp dara ngir dafa rëy lool nga sopp ko da nga sopp dara ngir nit ki dafa amul njàmbaar loolu nga sopp ko wala dafa am xam-xam wala dafa am kattan nga sopp ko wala njàmbaar gi mel ne alim nabi talib wala xaalid ibn wala xam ne nit ñu bari dañuy dégg seen tur rek sopp leen njàmbaar gi rek a tax wala nga sopp dara ngir sell gi mu sell ci li gépp wàññi ko mat gi mu mat rek nga sopp ko wala nga sopp ñu nit ngir jikkoom yu rafet wala nga sopp nit ngir bindam bu rafet ak kanamam bu rafet wala nga sopp nit ngir da ngeen a nduroo wala dafa am lu ngeen bokk wala nga sopp nit ngir takkoo bu ngeen takkoo ak yàgg bu ngeen yàgg ba miinante nga xam ne loolu lépp dana waral cofeel lépp luy waral cofeel nag mu ngi ci yàlla ci yàlla la gën a dëgëre ci yàlla bu dee rafet rek suñu borom tabaraka wa taala gannaaw gis ko rek moo dàq ajjana mëneesu la wax war a faayam waaye mbindeef yi mu bind rek am na ci bindeef yoo xam ne seen taar buñ ko génnee dëgg dëgg dëgg dëgg doomu aadama doof des ci àdduna ndax ñëpp daañu dee ndax waxtu woo xam ne jàkkaarloo nañoo moom ba mu jóge ci gisatuñ ko naqar dana leen rey ba ñu faatu yonent bi salaa sallam toog na ab diir gisul Seydina Jibril mu namm ko namm namm namm ba namm gi jéggi dayo Jibril namm yonent bi salaa sallam ba namm gi jéggi dayo ndax Seydina Jibril am na kàttanu gis ci yonent bi salaa sallam loo xam ne meloon woo xam ne nun mënuñu koo gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam it ni muy gisee jibril ndax gis na ko ñaari yoon ci meloo ko yàlla bindee attanu ko mu xam waaye melawum daan dikkee ci moom waxtu boo xamee ne dikkawul melaw doomu aadama ji mu xam ni ki ni mu daan dikkee ci melaw dexiyatal kël bi wala musabu na umayr wala keneen ku mel ne ñoom lu dul mu dikkee melaw woo xam ne dafa rafet nga xam ne si naa jibril bu ne jëbb ak laax yi xam ne couleur bu gën a rafet bu naa leen xam ne tahaawil yi day mel ne man day teel sa xol bi day bëgg a xotti ko nga xam ne da ngay mel ne kuy bëgg a seey bu naa leen xam lu mel ne tëmbi wurus yi day tasaaroo ci jaww ji nga xam ne foo wajat ko xet ji daf lay xeeñ nga xam ne foo toll da ngay niir boo ko gisatul boo watul daal di faatu nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog laylatul mi'raj malaayika yëpp ngir bëgg a gis meloom wu rafet wu tedd ba nga xam ne bu dendeeg jibril bu sidna jibril demee ci taar yi mu gën a am bu yonente bi salaa sallam feeñoo ci melow bu gën a am sidna jibril dina rus malaayika yi ñaan suñu borom ndigal ngir seetaan muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci leelatul mi'raj ba mu daataan àgg sidratul muntaha bi nga xamee ne gis nañ sidratul muntaha dott bi nga xam ne moom lañ ko muure malaayika yi mel ne njëri ren wurus muur garab gi ba mu daj këpp bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rombee ñoom ñëpp dañoo miir daanu mustaan nga xam ne kon buñ ne cofeel dana tax nga sopp dara nga gis ne am na ci jaam yàlla yi ñu xam ne duñu jibril di ñëw rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñi ay jaam yi suñ borom jag leen yërmandeem ak ngërëmam nga xam ne doo gis seen baatin seen zahir ngay gis waaye boo amee xalam am xalaat am xam-xam da nga xam ne seen xaqiqa ci rafetaay boo ko xoolam say bët yi ko ndax sa bind yaramu adduna yi amul kàttan mën koo jëkku jëmm yooyu rek boo xalaatee loolu da nga leen sopp boo xalaatee seenu njàmbaar ak fi ñu jaar nga seet si ahmadou bamba radiallahu taala anhu fi mu jaar fi mu jaar bi mu demagul ci géej gi ba fi mu jaar ak nasaraan yi bi mu nekkee ci géej gi ba ni mu dellu see muy fi maqaamañ ko yàlla may nga xam ne njàmbar gi ko yàlla may min gi ko yàlla may ngëm gi ko yàlla may ragal yàlla gi ko yàlla may wóolu gi ko yàlla may ba nga xam ne bu adduna bépp nekkoon ay soldats yu armé kenn ku nekk yor gànnaay ñu wax jëm ci moom mu picc mu naaw jëm ci moom yam képp nga xam ne bu adduna bépp toppoon ci gannaawam jox ko seen bopp lu ñu am jox ko lu ñu xam wax ko di ko xëyal di ko bontal moom adduna bépp wan ko gannaaw kenn du ko xool la yemale képp nga seet ne xam-xamam لأن لا حديث ما فينا عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بالكاتر ثم بهم خملنا ما لولي كل تيري دا علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلك ثم بهم ميغا خامني موما بوريال بويال ما خملنا ما لا جيس ميني في لا خيوان ليب خملنا مكو nga xamne kon bo gisee xam xamam bobu gis kattanam gogu nga xamne neena zina mun wara afri la billahi fi yadi nak mbolem jilef yep mu ngi sama loxo nga xamne kattan gogu nga gis njambaram bi nga xamne ni mu songol keneen ku song woon ak ñoom duñ ko nekk léegi mu dem ba jël si lam bañoon mu gën koo bañ la mu bëggoon mu gën koo bëgg nga xam ne ñoom ñoo dellu gannaaw ca la ñu newoon waaye moom ca la mu newoon daf ko gën a yokk nga xam ne njàmbaar boobu doon taxoon nga sopp ko sell gi mu sell ci lépp loo xam ne li ñu mën a xeebe doomu aadama la mucc gi mu ca mucc ak bëgg gi mu bëgg rasulullah bëgg gi mu bëgg boromam ak ragal gi mu ko ragal ak fonk gi mu ko fonk jeex gi mu ci jeex ba seey ci moom ba dell siwaat bi wujudi mawhubil xaqaani di wax ak jaam ñi ngir yërëm leen kooku seetloo itam li tana suhi ani na xaay boobu dana tax nga bëgg ko jikkoom ji rafet ji nga xam ne bu dul woon wilaaya ji du xam-xam bi du jub bi du lenn du li muy jëflanteeg doomu aadama yi li mu attana jéggal ak ni mu yénee doomu aadama yi jàmm ak ñi nga xam ne fu mu toll day ñaanal mbindeef yépp nga xam ne mbindeef yépp ay njabootam lañu boo ko seetloo dana tax nga gën ko bëgg boo seetee nag kon xam ne kon cofeel li koy waral bari na bu bëggee sopp dara am na noo koy xalaate nga seet nag lim la jëriñ boo seetee sukuraat su metti seet rocci ruu seet tiisu bàmmeel nga seet lëndamaayu bàmmeel laaj ci malaayika yi yàgg din sa yàgg xam ne xamuloo kan nga fay jóge bis buñ dekkee jaam bu nekk dikkee ci sa melow jëf suñ borom dajale jaam ñëpp ci benn birab bu tàlli ñaay yi suuf su weex tàll mel ne xaalis amul tund amul xur amul garab gu sax amul doj amul fu benn jaam mën a làqu doomu aadama yi dajaloo jinne yi ñëw wër leen fukki sàppeeg ñaar malaayika yi ñëw wër leen fukki sàppeeg ñaar suñ borom ne yaa ma xel jinne wani ne sa su mu antam su mu min abtaari sama waat wala di fan ko zulaa ko doon illa bi subtaari jëmm ji la mën a fàggul ak pexe boobu nga xam ne kon da nga ko dal di sopp bokk set loolu jëmm ji nga xam ne kenn mun la jox a rububiya xaqam nga ci def kem kàttanam loo xam ne néew na jàmm bu ca mën a àgg ba dellu see kon coxeel bi nga xam ne mooy buum bi gën a dëgër ci bu yeew taaliba bi ci sëriñam mooy buumu coxeel nga fexe ba fangu ak coxeel ak coxeel da ngay sopp dara ba sopp lu xeetoog moom sopp lu bàyyi ko ci moom sopp lu mas a laal sopp fu mas a jaar loolu moo di joxeel dañuy sayidna abdullah ibnu omar daf daan toppatoo jeexit yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba garab boo xam ne bii bu mas a sax bu ndànk la yonente bi romb ko tànkam laal ko sayidna abdullah ibnu omar day ñëw samp ca ban di ko jubbanti di ko suuxat di ko nemmiku fu mas a jaar fu mu toll di fa jaar di ko fóon ngir sopp gu mu soppoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam sayidna abubakar siddiq radiallahu taala anhu mi gën a sopp yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci saaba yi noonu mu ko mu ko ci gën a soppee da leen la ci gën a ndax dañ ne أبو بكر يحب محمدا النبي وعمر يحب النبي محمدا والفرق دقيق بين هذين jaam yàlla yooyu nga xam nag dañoo sopp seen borom ba jeex ci ba xam ci lu mujjee jiir nit toll ci fanaaw nga nekk ni li nga xam ne moom la zaboor wax ne suñ borom nee na ana kan moo ma gën a tooñ ci may jaamu ngir ragal safara wala ngir bëgg àjjana mu mel na man bu ma binduloon àjjana binduma safara kenn waruma jaamu wala kenn waruma fonk wala kenn waruma bëgg kon ñoom ruus nañu di jaamu ngir ragal safara wala di jaamu ngir bëgg àjjana ndax ñoom gis nañu ne àjjana safara seen moroomu jaam lañu rek seen moroomu jaam du leen tax a jaamu yàlla dañoo bëgg yàlla ngir dañoo bëgg yàlla jaamu yàlla ngir bëgg ko ndax jaamu suñ borom ñetti daraja la daraja bi gën a jege mooy daraja jaamu gi nga koy jaamu ngir bëgg ngir ragal mbugal wala ngir bëgg tuyaaba moo xam ragal safara la wala bëgg àjjana gi mu ci mën a doon mooy jaamu bi gën a suufee daraja mooy bi gën a néew fay fayam nag doonte amul fu mu yem itam mu ngi ci def ak ëpp jaamu gi nga xam ne mooy gi ci topp mooy ki nga xam ne dafay jaam imtisaalan lil awamir wa ijtinaaban lil manahi suñu borom daal digle na nangam buur bu toll ne suñu borom lu mu digle rek dañ ko war a def ak lu ci mën a dikk su ma ko doon def ba noppi mu di ma yóbbu safara naa ko def lu mu tere rek dama ko jaam yépp ko war a bàyyi kon lu mu lu mu tere du ma ko jege mukk kooku mooy jaamu ñaareel bi bi ci yëpp daraja mooy ki nga xam ne dafay jaamu suñu borom ngir màggal ko ngir bëgg ko sopp bu ko sopp ca azal nga xam ne suñu borom daf ko boole ca ruuyam tànnoon ca azal ci xidda nga xam ne booba dara du dara jaam ñooñu ñoo ñi nga xam ne ajjana daf leen di namm ajjana leen di jaamu ajjana leen di yàkkam ci ko waaye ñoom du ñu yàkkam ko ajjana seen borom rek lañu xool loolu ci lu mel noonu arim na mu wax ko nee na damaa nelaw dal di gis mel ne dama dugg ajjana bu ma duggee àjjana ma daal di gis benn waay boo xam ne dafa toog ci kaw taabal di ko beer deel bépp xeet lu gën a neex lu xel mun la xalaat mu ngi ci malaayika yi ittiwoo wuñu liggéeye wuñu lu dul di ko di ko xéewal rek di ko indil di ko benn di ko teral di ko màgg rek loolu donc mu toog malaayika nekk ci wetu ndey jooram malaayika nekk ci càmmoñam ñii di ko leel ñii di ko indi ndox muy naan muy lekk di naan di waxtaan di xaqataay nekk ci mbëg moo xam ne dara du ko def mu ne ma gis beneen waaye boo xam ne dafa taxaw ci buntu àjjana di xool kanam yi nit ñi ku ko ci neex mu dugal àjjana ku ko neexut mu bamas leen a jàll mu ne ba ma leen weesoo ñoom ñaar ma àgg ci xasiratul quds li ñu tuddee xasiratul quds tubaab yi di wax l'ancienne stanley nee na ma daal di fay gis ci biir pavillon xadra ba téye suñu borom bu sell ba nee na ma gis fekk fa benn jaam boo xam ne waay nee na mu ngi nag ba tam yaa ngi bokk ko rek mu ne jàkk suñu borom tabaraka wa taala di ko xool rek di ko seetantal du xef sax nee na ma daal di laaj ridwaan mi nga xam ne mooy bëkk néegu àjjana ni ko kii kan la mu ne ma kii de mooy maaruful karxiyu dafa jaamu suñu borom jaamu ko ngir ragal safara wala ragal mbugal jaamu ko ngir bëgg àjjana wala bëgg xéewal wala ngir bëgg jenn daraja dafa jaamu suñu borom rek ngir bëgg ko ngir sopp ko mu ne loolu moo tax suñu borom daganalal ko may ko lu mayul kenn nit ñi dañuy dem àjjana ba yàgg ca suñu borom jox leen landu silka fii bi bu ñu ñëwee mu soog leen a feeñ ci biir bu gàtt buñ ko xamee buñ delloo seen kër seen i soxnaan ñu bàyyoon fakk leen ndax xéewal bu màgg gi ndax dàq gi mu dàq àjjana mu ne su ko xiyaar kooku nag suñu borom may ko moom mu jekki rek waaw muy maaruful ka xiir ngir sopp gi mu soppoon suñu borom loolu moo tax ma ne leen sopp gën a ëpp doole ci mboolem yi nga xam ne mooy yeew nee na ñaar ñi ci def ñi mu weesu bisru ibnul xaaris la ak alimaam ahmad ibnu hanbal radiallahu anhum ajmaina moo tax abu suleymaan daaraani nee na képp koo xam ne tey jii sa bopp la soxlaal loo lekk loo naan foo dëkk loo sol foo noppaloo foo nelawee nee na ëllëg yow moomu sa bopp mooy doon sa soxla lu la musal na nga lu la na ngay demee àjjana na ngay mucc ci xisaab na ngay jéggee siraat waaye ki nga xam ne itteem lépp mooy boromam bu ëllëgee boromam dong lay soxlaam keroogee xool suñ borom dong ak settantal ko ak nekkan moom di wétu likonteen moom mooy lii doon itteem Sufyaan Sawri radiyallahu taala anhu neewoon na bi nga xamee ne nelaw na te benn mbokkam moo xam ne suuf yi am cër ci yàlla la gis ko ne ko na nga def ak sama borom mu daal di wax ñaari bëy nazartu ila rabbi iyaan fa qaala lii hani an ribayi anka yabna saidi لقد كنت قواما اذا الليل قد تجا بابره مشتاق وقلب عميد فدونك فاختر اي قصر تريده وزرني فاني انت غير بعيد خلنا سان بروم جهرا منما نقلي دغل gërëm naa la lool nekkoon nga nit koo xam ne guddi da ngay taxaw rek di jaam ci sa alxuraan ci julli lu guddi bi lëndëm lëndëm lëndëm jaam ñi nelaw nga nekk ci man ànd ak rangoo ñi coxeel ak xol boo xam ne bii dafa lakk ngir topp ma léegi kër yi àjjana yaa ngi ñuy tànnal kër yi yaa ngi tànnal bu la ci neex sa nga di ma ziyaare rek sori du ma la sori mukk foo ma xoolee gis ma naka noonu ci jaam ñi du ñàkk mukk ay jaam ñoo xam ne dañoo takku jëm ci yàlla bu ñu amee ku ñu àndal ànd ak moom bu ñu amul ku ñu àndal it dem dara du dox seen diggal seen borom انظر الى ناقتي في ساحه الوادي يدخل الامام الغزالي كلما عظم المطلوب وشرف صعد مخلقه وطال طريقه وكثرت عقباته يعني من اهل اليقين اهل اليقين يوم خمنا يوم سين خل wóolu te bu mag dëgg dëgg nekk seen xol ba fex ko dañuy yëgandoo jamono ji ñu toll li waa àdduna bépp di yëg kenn ku ne la ngay yëg dañ la koy gën a yëg dañuy am yërmande ci jaam yoo xam ne musiba dana jóg ñooy gaa ñi nga xam ne ñoom la suñu borom tànn ñu nekk ruqaba ullahi mooy ñi nga xam ne def nañu taxaquq bil wujud al mawhub al haqqani ñu def ihtimam bil khashiyat wal amal salih kooku bëgg gi nga xam ne moom lañ bëgg alim al xayb wa shahadati mooy indi ñu dëkkaale yàlla tax sëñ tuba nee na dëkkaale gi ma dëkkaale ak sama borom tax na lu bon mënu maa jëlee kursi anil la daari wal mafasidi salamatu min jaari min kursi anil la ayni wal fujari kawnu badi alamina jaari dëkkaale boobu mu dëkkaale ak boromam ba di ko ñaan di ko woo yaa rabbi yaa rabbi bam ne ko neel yaa jaar yi yow sama aji dëkkaale ji bañ wax sama borom loolu nag mooy du ak yemukaayam sori na ak yemukaayam sori na ak yemukaayam ndax dafa amul dara lu ko doy ci yàlla ndax xir gi mu xir ci yàlla ak bëgg gi mu ko bëgg ndax jaamu suñ borom ak jox ko sa bopp ñeenti màkk bala am benn bu njëkk bi mooy al ibadatu al ibadatu mooy sag safara di dugal nit àjjana moo tolloog ilmul yaqin waaye al ubudiyatu nag moo tolloog aynul yaqini faw nga jéggi al ibada ba weer bala ngay àgg ci al ubudiyatu dëgg dëgg dëgg mboolem jaamuy jaam ñëpp day nekk ci sa loxo waa asamaan ak waa suuf boo jegee ubudiya soog ak ci ubudatu ubudatu nag mooy al xaq mooy xaqul yaqin ubuda al xurriya ci tegu mooy sa borom may la sa bopp may la ñi nga àndal goreel la yaatal la moo tax mu ne yaa maalikal mulki li wasaq duuna jawan fi mulki wal malakuti jahra yàlla may gi mu ko may boppam ak képp ko ànd ak moom moo tax mu ne kullu muridin bi yaluz yasadu wa innahu min alladhabu ba'adu moo tax ma ne wajhu alladi yaxibu ni yab yabdu yam wujuhu suada tam yabdu ndax sopp ko mooy sopp yàlla sopp yonent bi suñ borom nag suñ bi nee na yaatal na ma ci mulk ak malakut yaatal goo xam ne fu ma si neex laay wëlbat ko loolu gannaaw ba nga xam ne nag taxañal na ko yoon li nga xam ne moom la gaañu baax ñuy dog mu di jéggi ko ci diir bu gàtt loolu nag tabet sa borom la ca jaam ba mu bëgg jaam ba ko neex jaam ba ko saf mu tànnoon ko ca ëgal def ak ruuxam mu ëpp ruu yi gën leen a diis gën leen a yaatu gën leen a gudd gën leen a tal jëpp ruu bu ca askanoog ruuxam boo ñëwee topp ko ñi nga xam ne bu mbaam naaxee mbaam rek koy tontu bu picc samee picc rek koy tontu gaa ñi nga xam ne amoon naan ñoom ak bokk ca ëgal ci yow ma arastu ñoo koy wuyu fii mu di koo xam ne kii wakkilu na ci boroomam wakkilu boo xam ne mat na dëgg dëgg mat waaye boole ko iktisaab ngir topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax rasulullah alayhi salatu wasalaam dafa ne woon ak tawakkulu xaali wal iktisaabu aadati fa man raxiba an sunnati fa laysa minni nee na wakkiilu mooy sama xaal mooy sama mbir wakkiilu ci yàlla mooy bàyyi nga sa borom ak lépp lu mu def neex na la lépp lu yàlla def neex na la booleeg sabab lu nee na sabab lu nag mooy sunnaam képp koo xam nag wacc nga sunnaam si bokkul ak moom dara loolu moo taxoon ku xam yàlla dëgg dëgg dëgg day bàyyee mbiram ak yàlla waaye xam ne sabab yii moo tax ñu ci la ñu tërale sharia ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wootee nga matal def di sabab lu bokk ba noppi nga xam ne ñoom àgg nañ ci woon bu doon seen tawakkul rek duutu ci sabab lu dara seenu yàqin àgg na waaye ngir roy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jaar ci sunna tax nañ ñu def iktisaab waaye suñ demee ba jaam ñëpp jaaxle wala jaam ñëpp tiit foofa la ñuy gën a wóoroo foofa la seen xel di gën a dalee ni Moussa alayhi salaatu wasalaam bi ko Firawna toppee ak arméem ak yëlam mu dem bay soobu ci dax baarul xalzum mooy al baaxul ahmar bi mu demee ba àgg foofu nga xam ne mënatu la dellu gannaaw ndax Firawna ak ñi mu àndal ngi si gannaaw seen gannaaw te jàpp leen rey leen la ñu fas yéene ñu ngi seen gànnaay te ñoom gànnaay wu ñu ndax waajalu ñu ngir xare dañ doon génn Misra rek dem jëm Palestine mais inna la mudrakuna qala falamma tara al jamaan qala ashab musa inna la mudrakuna ba nga xam ne séenant nañu ñi ànd ak Moussa ñëpp dal di tiit mais ah gaañu de daañu ngëpp Moussa ni kalla inna ma yura bi seex li ñu déedéet yàlla laa ànd te dañ ma jaaral yow mu wóolu googu mu mu defee tamayus ci lañ ko yëgale ci ulul azmi maanaam mars ba juróomi yonante yi nga xam ne ñoo tiit yonante yi ci def tawakkul boobu sallallahu taala alayhi wa sallam bi nga xamee ne Uhud xam ngeen ni mettee ak ni yëfar yi bare woon ak ni ñu gañee woon jullit ñi ni ñu leen ëppee woon doole ba wër leen ndombo seen jaas yi dal seen jaas yi dal seen jaas yi dal ba kenn gisatu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam seytaane dugal ci xeli nit ñi ne leen rey nañ ko ba am ñu wane gannaaw bis boobu la ñu gas kan mu xóot muur ko ak cari garab ba mu daanu ca bis boobu lañ ko dóor aw gëj ci ba mbaxanam yeñ ñu mu soloon ba ñuy matt ci bopp bi ñu door ko xaar ba damm bënum ñu ne ko rëbbal ñii ñu al ko mu mer ba mer mi xëy feeñ ci kanam gi mooy suñu borom yëbal ko muy rëbbaakoon suñu borom na nga leen jéggal dañoo xamul rek bi nga xamee ne yëfar yi bàyyi nañ leen dellu ñu ñibbi Abu Sufyaan dal di dajeeg benn jëgg bu jëm Madina di jëggi lu mu jaay ak lu mu lekk mu ne ko ñëwal may yóbbante la yóbbante boo xam ne boo ko àggalee ëllëg buñ dajee ci béréb tàngam danaa la jox lu diis gëleem ci ñam ak alal mu ne ko liggéey ci yóbbante bi lan mu ne ko boo demee neel Muhammad nga tiitalal ma ko nee ko kat Abu Sufyaan wàññiku na moog xarem ba dañuy dellu si jekk li leen jeexal leen tàkkalee gi beneen noppalu ba waaja accès bu wax loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne xasbuna allah wa nimal wakil waaw yàlla doy na ma te wakkilu naa ci moom loolu moo tax alquran ne alladina qaala lahum nnaas inna nnaasa qad jamau lakum faxshawhum fa zaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allah wa nimal wakil fanqalabu bi nimatin illahi wa fadlin lam yamsusu suur wa tabu ridwan allah wala zu fadlin azim gaa ñi nga xam ne nee ñu leen nit ñi dajoon nañu ngir jëm seen kaw rey leen ragal leen leen tiit leen loolee doon leen ak gëm wa qaalu xasbuna allahu nimal wakilu ñu ne yàlla doy nanu te ci moom la ñu wékk suñu mbir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kaw ba mu yàgg suñu borom xamal ko ni ko loola amul mu xam la ne bu ñu ñëwoon day daañu mel ne démb maanaam ndax malaayika yi daas nañu xaat ba ji leen di rey bu ñu dellu si rek ñoom ñëppay jeex naka noonu ibrahima alayhi salaatu wasalaam biñ koy sànni ca kàmb gu mag boobu nga xam ne ci lañ dajale mag taal ko ba nga xam ne njanaaw lu naaw digganteem asamaan daanu ci ngir xëy njaay safara ñu def ko ci mbaq sànni ko bu mu daataan àgg ca kàmb ga Seydina Jibril dogale ko ngir yërmande ne ko ndax masaral safara si mu ne ko yàlla la ko sant wala yow rek yaa am si yërmande bopp ñëw mu ne ko maam am suba yërmande bopp mu ne kon nag bàyyil soxlawu ma sa ndimmal ndimmalal yàlla doy na ma mu ne ko ñaanal bokk sa borom mu ne sa sama borom xam gi mu xam sama mbir doy na ma ba duma ko ñaan wóolu googu mu wóolu woon moom it bokk ci ulul azmi gis ni li nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam def ak la Moussa defoon ñu seetee sëñ Tuubaa bi nga xamee ne donn gi mu ko donn jamono yi nga xamee ne ay mbokkam yi ko gën a jege am nañ position bu ñu jël ca doy ca gannaaw xarab Samba Sadio ci xas xisa boobu ni ngeen koy déggee wala bëgg ku nañu jamono yi nga xam ne tubaab yi itam ñu ngi koy ko tàmbalee di ko jéem a bundi xataan diggante boobu bëpp dafa dellu ci xasbullah wa nimal wakil la bu xaside gam way ba mu jëmee ci géej gi moom la kon nag wóolu la jaam ñuy rawantee wóolu gi ñuy wóolu yàlla ba nga xam ne ku daa saaka tëral leen teg ko seen put war leen a rendi mook nga bàyyi leen ñuy dem la ñu yemale képp seen borom dong la ñu seede moo teew ci seen xol te teew gi mu teew ci seen xol rëy na rëy goo xam ne gisatuñu leneen donte dañ leen di sànni ci safara yi gisuñu ko yëguñu ko moo tax yonente bi salaa sallam ne bu ngeen wakiilu woon ci yàlla dëgg dëgg wakiilu kon da ngeen def ni picc yi def suñu borom daf leen di wërsëgal li nga xam ne picc yi bu ñuy xëy dañuy xiif bu ñuy gont seen biir yi sas dal noonu leen suñu borom di kii wala basat waaye wala basat laa sal yi bari la ba xosi la di kon nag lan doomu aadama amul kàttan amul xam-xam amul mën-mën te yi koy dogale bari na li koy yàqal bari na toll na ci jamono ju tiis lan mooy pexem xanaa arrujo ila rabbi dellu ci borom rek doomu aadama taraxlu moo di sañoon taraxlu ak mokk mokklu ak suufe jëm ci yàlla di ko ñaan kattan mën a jëf lu koy jëriñ moo tax sëñ tubaa ne kama rujuuka li rabbil kalbi yakunu awla min ana idar bi li nga xamee ne seytaane suñ boroom mooy boroomam seytaane di xaj bu mu la xiir li nga xamee ne fii ci adduna kër ku amee xaj nga dem ca borom kër ga di borom xaj ba ne ko téyel ma sa xaj bi mu téye ko moo gën a wóor ne wut saw xeer woo xam ne da ngay fas yéenee xeex ak xaj bi mu ne nag fii tam seytaane boo ko bëggee mën da ngay dellu ci sa borom nangu xam sa lot ak sa doye bi ak sa tële bi sa bopp sa borom parax lu nag ci kanamam mu fegal la seytaane waaw ñaan itam bokk na ci gànnaayu jullit yi gën a màgg ñaan bi ngeen ci masaalikul jinaan dañ bi tudd na béréb yi ñuy nangoo ñaan tudd na jamono yi ñuy nangoo ñaan tudd nit ñi ñuy nangu seen ñaan xam ngeen ne jamono yi ñuy nangoo ñaan yu bari la waxtu woo wooree ba ngoon jot ngay dog waxtu wuñ la tooñee ba sa xol tàng nga di ko ñaanal ki la ki la ki la ëpp doole wala mu tooñ la tooñ gu mel noonu waxtu woo xamee ne wii yaa ngi naan ndoxum sam-sam waxtu woo xamee ne wii yaa ngi jàng sa waqaf ba àggale rawatina nag bu fekkente ne yaa mu ngi wàcc ci ci ci waqaf boobu ngay jeexale alquran bi bokk na ci jamono yi nga xam ne yiñ ci nangoo ñaan itam diggante nodd ak yaqaam naka noonu bu ñuy nodd diggante xaya ala salaat xaya ala salaah ak xaya ala falah xaya ala falah diggante yooyu itam diggante yi ñuy nangoo ñaan la boo dee jàng suratul an'am baak ci hatta qaalu lan nu'mina hatta nu'tiya misla ma utiya rasulullahi bala ngaa wax allahu a'lam ay ci ak risalaat yi nga doxe ci ñaan sa soxla naka noonu bu fekkente ne itam doom la joo xam ne ji waajuram gërëm na ko moom itam ku ñuy nangu ñaanam la noonu mu limee waxtu yi la limee bërëb yi maanaam bàmmeel yi yonent yi wala bàmmeel yi wàllu yu mag yi wala ulama wala amiloona yi seen bërëb naka noonu rëb kaaba ga bis yu bari naka noonu itam bis yi waxtu yi nga xamee ne itam mooy diggante njël ak fajar waxtu yi nangu ñaan la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne suñ boroom dana wàcce ay leeram ci yenn ci jamono yu mu tànn ni ngeen fexe ba taatan seen ndab ci jamono yooyu ngeen am ca leer yooyu ne waxtu woowu bokk na ci ñu ko ñaan dafa am ay charte charte yi bokk na ci bul lekk lu néwul bu nekk ci sa biir bul sol lu néwul bul toog ci béréb bu néwul maanaam kër goo xam ne wala béréb boo xam ne boroom nang bëggul nga toog ko nga di fa toog bu ko def bu fekkee ne yaa ngi ñaan topp nañu nga tàllal sa ñaari loxo nii biir yi jëm kaw li ngay ñaan topp nañu nga matal def jaamu yàlla genn moo xam da ngaa julli ba sëlmal di ñaan wala da ngaa woor ba ngoon jot wala da ngaa jàng alxam àgg wala da ngaa xarxe ba noppi wala nga def genn jaamu yàlla goo xam ne def nga ko rek nga daal di ñaan loolu topp nañ ko boo ñaanee itam bul wax ne mukk ñaan gi nanguwul ndax ñaan gi mën na nangu te doo ko xam ndax suñ borom mën nga koo ñaan loo xam ne ba muy ñëw sa fan du ko fekkee mu xam ne kon doo ko jëriñoo wala dina fekk nga meloo meloo xam ne loola du la jëriñ benn nga weesu ko wala nga dellu gannaaw ba doo ko mën a jëriñoo suñ borom xam ne lii du la jëriñ mun nangu ñaan nga ba noppi wattale lu ko wattale la ko lu ko gën moo tax booy ñaan itam doo bàyyi da ngay ñaan aka ñaanal rek di ñaan aka ñaanal ndax ñaan ci boppam ak jaamu yàlla la te day jegeel jaam bi boromam fonk ñaan bokk na ci melaw jullit di foo toll di ñaan melaw jullit bu gën a rafet la foo toll di ñaan ndax ñaan gi num gën a bare te waxtu wu nekk waxtu woo xam ne matal nga ñaan gi suñu borom dana ko nangu te waxtu woo xam ne ni itam la nga doon ñaan nangoon nañ ko ba noppi nga continuer di ñaan dañ dañuy nangoo ci ñaan nga defal la ko leneen ca wet ga xam ne seet yaa ngi ñaan ñi di ko nangu naka noonu tuub noonu la demee ci abdoulaye saalaan yi nee na danaa def bàkkaar boo xam ne du doon dara lu xilaafu law laa maanaam loo xam ne rek mënoon naa def lu ko gën ma def lii te loola dara nekku ci aayu bu doon keneen aayu ci moom waaye nun ñu jege téy ba suñu borom dafa ñuy jàppee loo xam ne du ko jàppee ñeneen ñi mu ne loolu du ma dañ di ko jéggalu di ko jéggalu waaye ndax xel gi daf may xeeñ xetu bàkkaar boobu daf may xeeñ may jéggalu bu di ma xeeñ may jéggalu di jéggalu ba xet gi xeeñatu ma ma xam ne suñu borom baal na ma ko naka noonu kon jéggalu suñu borom ak ñaan doo noppalu doo tàyyi doo bàyyi ndax sa tono la sa njëriñ la boo ko dëkkee da nga raw sa ay morom yaakaar naa ni daal fi mu nekk nag kon mën nañoo tàggoo ñaanante ba beneen yoon ndax dama xaw a sonn lool.
bisimilah rahmaan sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. léegi ñu nga yàgg ci suñu kanam. dafa am benn ñaari bayti si Ahmad Bamba yu ma bëgg a leerlu rek. benn bi ci masaali masaalikul dinaan la bi ci def ci benn ci masaalikul dinaan ak leneen la xadim waaw. بمثابة والشكر إن لم يكن ذنبا أكبرا ولست مستحله للإدراك أك يقود لي أك
bayt woowu mu laaj ci masalik yi sëñ bi ne والشكر إذ لم يكن ذنبا أكبرا ولم ولست مستحله للازدراء بكار بيغا ديف
الشكر إذ لم
nga nga bàkkaar bi nga xam ne def nga ko boo defee bàkkaar maanaam waxoon na ci li nga xam ne ibnu ata ila waxoon na ko fi matal xikam mooy bokk na ci màndargam ne nit ki dafa sukkandikoo jëfam xam nga ne sukkandikoo lenn lu dul yàlla lu xaraam la te mandargam wóoru la ba ci sa jëf ji nga jëf sax waruloo ci sukkandiku ndax jëf ji wóoru la nangu nañ ko mu déet te itam mënu doxal defaloo ko nang ko woon nam war a dëgg-dëgg mënuloo ko sa kàttan àggu ca kon jëf ji bu ko def muy loo xam ne li wóor la ne day sabab sa texe maanaam bul sukkandiku ci jëf ji na nga sukkandiku ci yërmande yàlla rek moo xam ne bokk na ci kon ci lii teg la waa ji dafa sukkandikoo ci jëfam mooy waxtu woo xamee ne ah juum na def na bërëcc rëcc yaakaaram gi mu yaakaaroon wàññi ko loolu day wane ne kon dafa sukkandikoo ci jëfam léegi mu wax ci bi nga xam ne nit ki dafa def bàkkaar mu def bàkkaar ba tey war naa sant yàlla ci ndax bàkkaar bi mënoon naa gën a lii ndax def na bàkkaar boo xam ne bokkul ci kabaa'ir yi bu ko defee war na sant yàlla ndax ba yàlla mi nga xam ne moo dogal mu def bàkkaar boobu bàkkaar bi mënoon na nekk bokk ci kabaa'ir yi bàkkaar yu mag yi nga xam ne ñoo gën a naqaree bàyyi te dañuy waral texee di gu gu sax kon nag bàkkaar bi nga jëf war ngaa tiit balu waaye nag na nga sant yàlla ndax mënoon na saa gën a rëy te kon musiba ma gën saa rëy te it na nga sant yàlla it ndax difuloo ko muy lu dagan ndax li nga jëf xam nga ne bàkkaar la bu fekkoon da nga koo ak dagan li def ko istixlaal wala wala sa mustaxil lawu ngir lilis bira ngir xeeb ko nga ne tey jii daal man bi may julli suba tuuti jant bi fenk waaye loolu amul solo nga daganal ko daal di koy def daal te fekk nekkul woon ci sax di nelaw da nga newoon ci sa lu neex sa bakkan rek wala muy leneen loo xam ne daal mënoon nga koo xeeb daganal ko ne daal araamul mu ne gannaaw nag yow bàkkaar bi tuut na li mu tuut tuut yow réyal nga ko sant nga yàlla itam ndax mënoon na fee gën a rëy waaye itam xam nga ne lu xaraam la xeebuloo ko ba di ko def lu dagan loola itam war nga caa sant yàlla ndax kon mu ngi wane ne rek musiba mépp mu la dal mënoon na faa gën a rëy te kon ba tey war sant war na ca ndax bu neexoon yàlla bu def ko lu ko gën a rëy te itam nga juum nangu ne juum nga nangu ne lii kat lu xaraam la man maa ko def te it ñuri na lu tuut waaye lu réeré la ndax mën naa sabab leneen nga tiit loolu itam war nga cee sant yàlla ndax bu ko neexoon mu defal la ko ndax bàkkaar bu tuuti itam bu fekkee da nga koo da nga fas ne lu dagan la day daal di nekk bàkkaar bu rëy boo ko daganalee rek muy bàkkaar bu rëy ndax ñaari tooñ la tooñ yàlla ba noppi ne tooñu ma ne ko tooñu ma la mu mel ni nga tooñ ba noppi ne ko tooñu ma la xoolal day gën a sot rek kon nag war ngaa sant yàlla ji bàkkaar mënoon na fi gën a rëy te gënu te te far yàlla defu ko mënoon ngaa sant yàlla yi tax bàkkaar bi nga def mënoon nga koo xeeb ba daganal ko ne daal lu dagan la loolu itam dalu la kon war ngaa sant yàlla loolu mooy bayit ak yaquudu li wala yaquudu minni illa liman shi'tu bi idnin minni
yaquudu lii wala yaquudu minni illa liman sirtu bi idnin minni bi idnin minni su borom dafay wommat di indi ci man jaam ñu mu yéene fexe te du jële ci man yóbbu ci kenn wala yaquudu minni illa liman lu dul koo xam ne kii rek toog na ma koo xam ne kii itam ak texeem dana jóge ci man dem ci moom day fekk koo xam ne neex na ma rek man lay neex suñ borom bàyyi ko texe mu jëlee ko ci man wala wala yaquudu minni illa liman illa liman shi'tu bi idnin minni waaw bi idnin minni ak sama ndigal itam ci lay doon du jaamu yàlla ak tooñ la boo ko lekkee it lekk nga lu xaraam mu ngi ci sa biir boo ko solee sol nga lu xaraam boo ko dencee denc nga lu xaraam daal di la xisaab yow ma la xiyaam te da nga wax nan ndax piscine bu dugg sa loxo daa nga wax da nga wax yow ma la xiyaam na mu na mu la dikkee na nga ko fàggoo na nga ko amee ak ci lan nga ko def itam ba ñaa ba mu jeex
ñoo gis ne Serigne Touba da ne akramani alxayu alladi laysa yamut wa bi annani xayun bihi la samut wax fu ba- fu bari ci ni xaatimatul mulaayaati ni moom laa yamut ni ila tuwa nafsi intihal mu te yàlla ni kul nafsin zaa'iqatul mawt sama deuxième question aussi mooy tamit si yà- yàlla dafa xam ne sottu la loolu
sëñ tuba wax na du dee wax na ko fu bari waqaani al mawt wal amrada yarfauni bi ruhi wal jismi lil jannati wal raahi suñu borom am na jaam ñoo xam ni segal na leen dee waaye nag ci meraw saahir yi nit ñi ci bët nit ñi daañu ko gisee nii fekk na nag dee gi nga xam ne mooy dëgg dëgg dee du leen dara yonente bi salaa sallam bi mu fi jógee te saxaaba yëpp tiit ñii seen xel dem ali nabi talib toog mënatula jóg sidna omar nit ñi wër ko muy coow di wax loo xam ne duñu wax lu kenn xam naan ñi naan Muhammad dee na yaa Muhammad mi nga xam ne dafa dem rek dee yàlla borom ni Moussa demee woon dana dellu si bu ñëwee gaa ñi nga xam ne dañuy wax naan dee na daañu dëgg seen loxoog seen i tànk daañu def nii daañu def nii sidna Abubakar radiyallahu anhu bu mu agsee dafa waaxu rek xot si mbooloo mi ba àgg ci fi ñu ko tëral sallallahu taala wa sallam mu muri kanam gi dal di koy fóon laqad sibta ayyan wa maytan dal di ne giñ naa ne dee gi nga xam ne suñu borom bind na ko ci yow moom def nga ko moo di kon ñoom am na lu ñu tuddee loo xam ne moom la nit ñi tuddee dee ci seen i bët noonu lañ koy gisee baatin nag dafa solee zahir lool fekkam duñu dee suñu borom nee na wala tax ci bana dañu xutul fi sabilillah am waatin baax yàlla insa bi yursaquna bu leen jortoo mukk gaa ñi nga xam ne dañoo jox seen bopp yàlla ba jóge fi ngeen jàppee ne ñu dee lañu déedéet deewuñu ñu ngay dund fa seen borom dund boobu façon mu dund la boo xam ne ndax roo ci boppam wax naa ko ci conférence yu bari roo ci boppam noonu rapport am ak yaram foofu sax am na defe naa ko laaj laaj bu mel noonu waaw am na continue bàyyi bu loolu ak loolu ay daraja la ndax shahada ci boppam ay daraja yu bare bare bari la kon nag dee ay martaba yu dul jeex la yu bare bare bare bari am na ñoo xam daañu dee am na ñoo xam ne duñu dee melaw saahir yi nag ci ni ko nit ñi gisee ci saahir ne noonu la li ko mbooleem ku yàlla bind dañ ca jaar mooy kullu nafsin zaa'iqatul mawti waaye nag ña tax suñu borom naan bu leen jot li mukk dee nañu déedéet ñu dund lañ fa suñu borom di wërsëgu nii ñooñu baatin ba moom xóot na su ko xamoon sax doo ko waxtaane te it mënee si coo di xam ne mel na misaal mu ko mën a xamle waaye nan nangu rek fas ne suñu borom wax na ci alquran ay gaa yoo xam ne du ñu dee sëñ Tuubaa ci boppam wax na fu bari ne suñu borom fegal na ko dee fegal na ko it tawat yi waaw ñi nga xam ne nag moom ci boppam moom xam na ko ndax jaar na fa moo ko xam dëgg dëgg xam jaam yi ci def nga xam ne dañoo xam tasawuf ba xam tasawuf ak ñu ci xaqul yaqin boobu ilmul yaqin ci lañ ci toll ak ñu sax ci aynul yaqin waaye mën nañ cee misaal loo xam ne du dugg bopp ci amul ilmul yaqin ndax baatin la boo xam ne bokkul ci la ñuy waxtaane waaye sëñ Tuubaa suñu borom fegal na ko dee fegal ko tawat day dund ba kere ñuy ñuy ëpp bufte bi ak yàlla doomal xaam itam muy dund gaa ñu baax ñëpp wër ko suñu borom indil ko xeeti beer ndeen beer nde bu du jeex ñu ñu ko waxee waalaa neel abraaru fi uxraaya an qaadali bilante xaxraaya tas am na ko waaw deuxième question mooy dafa am ñu koy wax yàlla la ndax may ma laaj ndax du shirk ndax yàlla nee na faalu annahu la ilaha illallah ñenn ñi di ko wax yàlla ndax du shirk
baat bu am xatar la sax tax yàlla moom nangam yàlla la diw yàlla la ëpp naa ku ko wax ci sharia sharia dana la yar am na ci foo xam ne boo fa àggee sharia dana la rendi dana la rey teewul nag am na lu am waaye nag ki koy wax ndax xam na na mu koy wax rek la tax mu di ko wax wala déet foofu la mbir ma nekk bu fekkee ne xam na fa mu koy teg ak la tax mu wax ko dana nekku ci lu dul la ca nekk mooy jaahil bu ko dégg fase ko noona mu gaañu ku ko xamul nag di ko wax ñaara am fa zaahil wa saaxi fa ko nekk wax saaxi la daañu ko laaj lu mu jublu fekkee ne zaahil la zaahil laa xukma la amul atte waaye nag saaxi bi nga xam ne mu ngi ànd ak xelam wax ko te tegu ko fenn moom def na lu rëy ndax alxallaaj li taxoon ñu rey ko bi mu ne maa fi wastil jubbati illa allah subhaani ma azama sha'ni ana alxaq ba mu ne man maay suñu borom alxaq alxaq ci turu suñu borom yi la ne mbub mi kenn newu ci biir dugul yàlla na mu ko waxee xam na ko la mu wax xam na ko waaye nag ahlu shariati ñoom te ñi nga xam ne ñoo ko doon atte nanguwuñu taawil ba xamuñu tasawuf dañ koo rey ñoo ñee ko rey nag nga xam ne aar shariat shariat nabi sallallahu alayhi wasallam mooy tax ñu rey ko dara du leen ko fekk xalaaj it dara du ko fekk ca la mu wax ndax la mu wax dafa fekk xaqiqa maanaam réalité bu am mu bëgg koo wax te xamul na mu koy waxe mënu ko wax ndax dafa am ci xaqaayiq yoo xam ne lamiñ ak benn langue benn làkk mënu koo génne mënu koo wax te sere nañ ko wax ki nga xam nag dafa dem ba leer gand ko ba xamut li mu wax mu wax ko bu fekkente ne atte wuñ ko ci sharia yàlla musal ko dara bu ko ci fekk buñ ko attee ci sharia rey ko mu xam ne moom ci boppam moo juum loo tax si abdul qadir jidaani radiyallahu anhu ne xalaaj dafa fakkatalu te amul kenn ku téye ci loxoom rek waaye bu ma fekkoon jamonoom danaa téye ci loxoom kon bi nga xamee ne mag ñi daañu ko nettali mais ci njaareem dafa ma sa am benn naar bu sëñ bi toogal ñu waxtaan ba mu yàgg am benn taalibe bu wonk ni wallahi barke yàlla nga dégg naa naar bi dënam rëcc mu diis lool fi moom sëñ bi laaj benn ndab ñu raxas ko mu set mu laaj tey suukar ñu xolli ko sëpp ko ci këll bi ñu continuer seen waxtaan ba suukar si seey ba def lu kël ne dërëm rek ci taabu kii bi mu jox naar bi jox ñi fi toogal yépp ne mos leen ñu mos ko mu ne leen ndax mën ngeen a tàqale suukar si ak ndox mi ñu ne ko marqué loolu kenn mënu ko ndax suukar si ndox la ndox mi suukar mu ne ndax am kiñ ma doon tudde loolu noonu noonu léegi noonu la mu demee loolu mooy bamma xayaati li xayaatillahi allahu daaxilan jinaanallahi ma ne naqari naa dugal nag ci bopp nit yooyu kenn waru koy wax ndax ka xam fa mu koy teg rek ko mën a wax waaye keneen ku ko wax lu bare ngi ci biir lu rëy ngi ci biir xalaaj loo tax ñu rey ko ibnu qasim lu mel noonu lañ ko reyee ibnu sabin lu mel noonu lañ ko reyee ak ñeneen ñu dul ñoom ak ñu dul ñoom ak ñu dul ñoom mu ne day lañ wax dëgg la te itam ay nit ñu sori ci yàlla lañu ñu xam yàlla ba mandi ca leer yàlla waaye nag la ñu wax sharia ci boppam daf koo tere ndax tere ko sharia tere moo tax ulama yi dëgg ca rey leen kon nag demande bi li ko war na laaj ci lépp lu mu xamul bu ñu ko nee lii kat mu ngi mel ne soobu ci tàkkal géej gi te mënu laa seey mën nga lab de mën nga lab boo mënee seey dara nekku ja waaye boo mënul la seey buñ la ko teree xamal la tax ñu tere buñ la teree léeg-léeg mën nga dem sax ba ñu tere la tàkk gi rek lu tax xale bu ndaw nga boo demee ci boo demee ci tax gi leen nga jéggi ko dugg ci ndox mi te kon sa lap mën na caa dikkale moo tax yu mel noonu yëpp boo gisee alquran ñi xam dëgg dëgg al ulama rabbaani yoon yi di tere ku ko firi moo di ne nit ki waxtu wuy dee dañuy muri ba ci xolam yëpp yëpp yëpp mboolem li ci àdduna biir ak bitti ak i jëfam ak lépp day leer ci moom ne rëdd baaraamam yi waxtu woo xamee ne li mu fasoon ci pas-pasam ci tawxiidam gis na ci loo xam ne nekk dëppoowul ak la jub moom ci boppam dana dal di tiit ñaaw njort ci boppam te bu roo gi rotee set dajanteeg ñaaw njort boobu mu ñaaw njort ci boppam ragal nañ ci ak texee bi sëñ tubaa nee na is axbaru bi annahu inda zunun abidi min xayrin aw charri yabin suñ borom solo nañ ne mu nga mu ngi tollu jaam bi fa njortam nekk rek gannaaw nag alxuraan ay jiñ gi rek ci ëpp ak baatin nga firee ko nii jàppe ko noonu nga dem bay dee fa nga xamee ne fa ka xas naa anka xifaaka ñëw na nga jànloog xaqaa'iq yi gis ne yow kat pof pof bi nga xam ne ci nga dundee woon moom nga defoon sa diine moom nga doon jaamoo yàlla lu jeng la nga daal di am ñaaw njort ci sa bopp daal di ci dajante la qadar laahu sa guru di rot xaaya nga ca musiba nga ca xasara nga ca yu mel noonu moo waral ñii aayal yenn yi mel tamit suñ tubaab ku bañoon ko firi alquran la ndax xam gi mu ko xam xam la ca nekk moo tax yu mel noonu yu bari mar nun nañ koy wattandiko ñun gannaaw nun ñu gën a bari ci nun ak bu ñu sax ci sopp sëñ bi ba man di ci leer yi ba xamatoo foo nekk bay wax yu mel noonu yaa ngi toll ci mu ne di déglu ndigal sax ca jaamu yàlla di jàng xasaayid yi di sàkk lu baax di daw lépp lu bon nanu toll foofa te yem fa kun fan la ko suñu borom mësa wàccee kun moom wax naa ba tey ci conférence yu bari ñu koy laaj kun suñu borom doomu aadama dong la ko mësa jox joxu ko malaayika ñu ko malaayika yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag joxoon nañ ko kun gannaawam ci ñi ko doon ñu ci bari woote nañ ne suñu borom jox na leen kun kun nag sirru la boo xam ne loo ca jublu rek boo ko defee mu am ci kàttan suñ borom akuk ñammeelam kun bi nga xamee ne jox nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na ku mag ku bokkoon ak moom jamono ku ko ko laaj mu ne koy